dellusiwaat nanu ci ndimbalal sunu boroom subhaanahu wa taala ak tawfiqam ngir jéem a laabirante mbokk yi fi rotal ay laaj ñaan sunu boroom nangul nu defal dégg ak topp te defal nu sa àdduna ak àllaaxira mbokk mi laaj benn waaye ngi ni boo xam ne daa woo soxnaam xam naa téléphone la kon ne ko fase naa la ñetti yoon yàlla dogal gannaaw ba mu bëgg caa jotaat bëgga jotaat ca soxna sax mooy laaj nu muy def bu dee ci mazhab imam mari bi ñuy sukkandikoo moom fase mu mel noona ñetti fase lañ koy jàppee ndax waa ji moo ko waxal boppam dëgg yolof naan kenn séqalu ko lem kenn séqalu ko kaani yow mi yàlla jox soxna ñu jox la ko jox bu rafet lislaam ne boo bëggee tàqale kook moom jërut fase naa la ñetti soxna ñetti fase yeeg nàngam yow ne ko fase naa la rek soo bëggee mu dem dana dem ci benn fase mi donc bu yàlla dogale waxtaanaat wala sa xel dellu si boo bëggee dellu si mu dellu si xam nga loolu jàppandi na ah yow la la wax la la lislaam may nga jël ko sànni ko fee dem doxee sa bakkan ak sa ñàkk tey jekki-jekki naa ko fase naa la ñetti yoon te bu ginnaaw ginnaaw ba nga wëlbati ko di ca toppaat loola kon li muy tekk rek mooy ak tey nga lislaam bëggoon ci yow ak la ñoon séntu ci yow ngir nga mat sëkk borom kër maanaam yàpp na borom kër mu daa war a nekk ku teey war a dal eh, moo tax ñu yëkkati jigéen sa andil ko ñu muur ko jàpp ne jigen di kat moom mo jara muñal wa yow eh, xaw nga mat am nga tuti ak mat lola lamay tek rek moy goor ñi war nañu xola seen bop dama wax ne sey bo xana buñ koy tak kilifa gu ne danañ ko yëgal kay yëgal ay mbokam yëgal diw mag ñepp ñu déranger leen dajale leen ci jakk ja day saar ñu nekk di wax wax ju rafet ñepp am ci yaakar koko bo dé mbay xosé xolal lool xolal fañ jaar ba tak sey ba ra nga nga nga waxtaan soxna si nang ko yedd nga def nangam bu kiwur nga dem xol sa mbokk kan la ci rus bu kiwur nga dem ni jaay wala baye nangam nga diw da bëgg nang nga ñëw ci kër waaye góor ñi jek bu ñi tak tak ga day metti lool fu ne lay jaar waaye bu ñi fasé dañuy jël seen bop nala, jek da na fasé na la waaye lo xamne ne waxe ko benn yoon la nga bëgg dana mat waaye loko waxe ñet yoon ta ginnaaw bi da ngay wëbir ko di ci topat motax ku mel non dañ koy yar dañ na ko sa soxna ci mëno ci jotat arab na la li feeg geneen goor tak ko loolu moom daanaka ñu bëri xam nañ ko léegi maanaam lu ci ëpp kuy laaj lu mel nii moom dara ko xam dara xam ne moom fase na soxnaam ñetti yoon ndax ko wax ci làmmiñul boppam tey dana xam ne lu mel nii lislaam wax na ca nàngam xanaa léeg-léeg da laaj nii rek ngir bëgg xëy ko eh, ubbil beneen bunt bu gën a yomb lu mel noona ñetti fase moom ku ko fase sa soxna soxna sa dalay araam li fekk geneen góor tëkku ko ci coobareem ba yàlla dogal yàlla dogal ñu tàqalikoo ci ndogalu yàlla te bu mu nekk complot bu mu nekk Euh, dama la koy takkal ngir nga nangam déedéet yàlla dogal rek soxna si sëyiwaat na feneen ba tase na foofa nga dog cee mën a jotaat nag ngir ngir loolu dañ la koy yare ngir sa ñàkkatey ak ñett jox la ñetti fase ne la defal ndànk yow nga jël boole yëpp defandoo ko loolu ëpp naa def mais mu ne ko doon pharmacie jox ko ñetti doom te boo boo naan bi boo añee naan bi boo reer naan bi yow nga ndékk rek nga boole yëpp naan loolu ak ëppal la moo tax kooku moom loolu la donte ci waroom xam-xam yi am ñu ne ah bu fekkee ne ñetti fase ya da koo waxandoo benn baat rek waaw daal daa jekki-jekki ne fase ya naar nga xam ne nekku ne da koo fase ya jëlaat ko fase nangam am na ñu ca gis ak oyofal ne ko loolu su boobaa de def na lu xaraam def na lu bon ndax ko ko defoon yonent bi da caa meroon lool waaye ñu ne nag loola euh, du tee dañ ko may mu mën koo jëlaat te may ko loola muy muy may ko loolu muy muy muy muy muy benn muy muy mennum fase rek loolu ne da ko caa yéene nag lu dul ne moom ba mu koy fase ñetti fase ñetti fase la moo nekkoon ci xol loolu la yéene wala ginnaaw bañ ko laajee lool la wax gën koo confirmer kooku moom du ca mën a jotaat mukk lu dul ne ba ada saw ci day am euh, te ñoo bàyyi xel nag lu mel noonu kenn sëñu kaa dox tànk jàmm maanaam nit bu fasee soxnaam ñetti fase kenn sëñu kaa ñëw di ca dox jëlaat ko loolu boo ko defee mooy yaa ngi koy puus ci lu yàlla xaraamal loolu nag ñu bari dañ koy def bu fasee soxnaam ñetti yoon ay mag jóg di ca dox ñooñu ñi ngi dox ci lu xaraam loolu dëgganu mooy yaa nga fekk lu yàlla tere ba noppi nga di ca dox bëgg mu amaat yàlla ci yàlla musal wallahu aalam mbokk mi laaj ne koo xam ne dafa may ab pàkk sëriñ daara waaye dafa sartante moom nag ne ko waaye daara nga ciy defar faaw dañ ciy jàngale alquran waaw loola sañ na ko loola kii maye sañ na ko xam nga maye dafa am ay xeet nit ki sañ naa jékki-jékki yëkkati dara may la ngir yàlla yaa xam la nga def waaye nag nit ki sañ na laa jox dara sartante ci yow nangam sëñ bi dama dama laa bëgg a jox sama pàkk bii waaye nag euh, la ma ca sàrt de mooy alxuraan doo nga ciy jàngale man naa nag nga tabax fa sa kër dëkk fa ak nanga waaye daal nañ fa jàngale alxuraan loola sañ na ko loola sañ na ko sañ na ko bu baax incha allah bu fekkoon nag daa jékki-jékki rek ñëw ne ko pàkk ah, bi daal may naa la ko ngir yàlla jeex na kon koo sëñ daara ba ko ci neex lay def waaja bu la ko nak nan ko eh, sama pak mo la mayon faaw nga def ci nangal de dañ ko deedet ko yow ko yow sertu ci won lol dang ko mayon ngir yalla lu ko neex la cay def lam la waye rek bu fekke dana ko dama la bëgg jox saa pak bi ngir nga di ci jangal alquran rek ana lol la ci sart ah ba lol loola sañ nako ku man loola nga jël def ku ko mënul nga nga xamne lol la mëno ko allahu aalam laaj bi fekk mbokk mi laaj lu jëm ci walu dejj ak liñu wax jaxal waaw dëj de moom yàlla dogal na lislaam jàngalewu ko euh, lislaam jàngalewut ne nit bu faatoo ñu daje ci kër ga di togg ay yëf yëfaan di fa dajaloo rawatina buñ fa dajaloo ni ko mbokk mi laajee lu ne dana fa am ay jëw ay nàngam euh, yooyu yëpp dafay am moo tax lislaam santaaniwu ko yonent moom lim jàngale mooy ak kër bu fekkee am na ko fa faatu nañ taxawu néew ba buñ taxay jullee ko jébbal ko boroomam defal ko ay ñaan jeex na la ca tegu la lislaam mayewaat mooy dem jaale ji te jaale ji du joxe xaalis léegi jaale dañ koy yoxe xaalis di ko bind mu nekk luy xaw a doy waar loola jaale mooy yàgg koo jàngale nga dem ca kër ka faatu woon xool njaboot ga masawu leen wax lu baax la nga xamoon ca néew ba loolu rek la ñuy tudde jaal ci lislaam doo fa toog di xaar ay añat comme ni ko njóobee ni defe loolu moom jafe-jafe la bu rëy a rëy rëy waaye gis nga biñ biñ wàccee la lislaam jàngale wala la ca tegu lépp gis nga la ca juddoo gis nga ni mu bare da gis koo xam ne day feebar du mën a jënd la ordonnance bu faatoo balaa mat ñaar fukki minute ñu rey wenn nag wala ñaar waaw rey wenn nag wala ñaar togg ay ceeb yu bari lu gàtt gàtt ñaari saa koy ceeb ñu mën koo tëral nga xam ne lii ñu koy def bu fekkoon taxawoon nañ ko ba muy dund ah yàlla mën naa dogal day du faatu xëy na doon de faatu waxtu waxtu la waaye am na ay sabab am na ay sabab kon dal day doon xeetu dëj yi xew ak jaxal yi ak nangam loolu suñu mbiri bopp la suñu ay aada la yoo xam ne la ca ñaaw bari na lool ala kulli yonante bi lam mu waxoon mooy nit ki bu fekkee ne am na ko wàññeeku ci génn kër bañ taxawu ko ba noppi yonante lam mu waxoon mooy kër yam dendal ku ci nekk na tibb ndab yónne yóbbu fa ndax ñooñu kat buñ faatulee di tal ay toog ak yu bari mën naa am duñ ko tal waaye nag beneen beneen côté be da ngay bàyyi xel ne boo nekkee ci réew moo xam ne dañoo yor seeni aaday yi bopp waaw léegi yow yow borom kër gi yow mi dëkk ci kër gi am mbokk mu faatu sa waajur wu jigéen wala nangam loo bëgg bëgg bëgg loo bañ bañ dëj ji boo man bëgguma ko wala man loolu kat neexuma waaw loo ci ban ndax li ngay am kat mooy buñ nee diw faatu na balaa bat nangam njóobeen yëpp dajale seen am mu ñëw toog loo ca ban te dañuy jàpp ne nag ñoom ay mbokk yu jege lañ ñoom moom faaw war nañ fi am ñetti fan ak nangam loolu doo ci man lu bari waaw toog fa ay fan yu bari ah ay gan nag boo ko amee ay nit ñu ñëw toog sa kër ne faa toog ah faaw wax dëgg nga wutal leen luñ lekk wutal leen daanaka moo ko andi loolu daanaka waaye la jaadu woon mooy même bu fekkoon ne am na lu ñuy rey ngir di ko defal sarax wala nàngam dañ ko waroon rey buñ ko reyee ba noppi yóbbu ci daara it mu jeex waaye dajaloo fa nag nekk lu kenn di fa wax lu seen yoon nekkut ah, loola nag moom moom moom yeneen la yeneen mbir la moo tax daal lu mat a wattandiku la waaye moo tax lislaam jàngalewu ko lislaam lu mu jàngalewul rek boo ko defee yeneen jafe-jafe dana ca juddoo lu mel ne jaalit wax naa ko lam do non moy wax ju rafet ak ay seede yu rafet tanem sa yoon kese lool la won waye ñew daal di ñew sanni sa téeméer sanni sa nangam ba daal di fas yéene toog nag boo toogee amoo loo def do ñaan do def dara légui nag waxtaan day tàmb day da tambali nga dugg ci lu seen nekkut jëw ba lu ne nekk ja waaw lu ne lu ne man caa nekk waxantuma ak nak li ñen ñi xewal naan ki faatu seen maam la dañ koy ñaawal ko faatu ne ci bammel ba xamoo sax ndax mang fa mang fa nekk ak jàmmam déet nga dañ koy ñaawal ngir ne sa maam la muy aada ju bon ju salté ju ñàkki teggin yàlla yàlla musal ñu ci ne dañ koy maamoo ma kon gis nga rek ni mu xawee doy waar ngi euh, yàlla dogalee nag yow mii mu neex la nga da ngaa bëgg a yëkkati sa alal joxe nga di ko joxe ngir yàlla euh, ngir xëy na daal yaa xam la tax ko joxe yaa xam la tax nga di joxe waaye lislaam moom soo waxoon ne kuy yàlla nga yëkkati xaalis di joxe taxul nag mu la faaw doo ko joxe yaa xam li tax nga di ko joxe waaye loola nañ ko xool fañ ko mën a yemale ñu yemale ko fa rek amma nak buñ dee ba di ko bind ak di ca di ca fayoon toog di ca def naag wala ñu di ko xeeb naan diw bam kee lii doo nga la ko jox ak lu ne dugg ca loola nag day mujj xaw a doy waar wallahu aalam bu dee laaj bi tege mbokk mi day lu ne dafa jotoon am ay tuut tàng te jotuleen a rayal maanaam ay gàtt ndax dafa am tudd te rayu li leen ay gàtt mu ñëw rek day jënd goro séddale ay kiyam mu jeex waaw l'islam de moom rawatina ci yoonu Malik dañuy wax ne am tudd mustahab bala dañ koo sopp kon boo mënut bàyyil jeex na wàcc na la kenn du la waxaat naa la kay tuddaat ko boo amee boo doxee jimmi jimmi defal naa nga déedéet mu daal bu jotee nga am gàtt boo mën a tuur incha allah sopp nañ nga def ko bu fekkee amoo ko wala boog bala nga ko am nañ cee sonne lépp ay yëf ay yëf yëfaan topp la ca bàyyil lislaam teggil na la ko mu jeex waaw loolu daal moom moom lu oyof la lislaam moom yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yàlla daa bëgg lu jàppandi ci yéen waaye bëggul ci yéen lu leen teg fitna euh, tabarkàlla lu ñu teg la ko lii mënta ñàkk lii boo ko defut da ngay am gàcce da ngay def nangam ba nga toggoo ci loo mënut wëlbatiku ñu la cay porte benante lu ne nga dégg ci dugg doo nelaw wala di tegg ay mbedd loola moom lislaam euh, diine saa borom ji tegu ko tegu ko kenn teewul nag boo génnee ngirum maari am na ci ay waram yoo wax ne saa yu yàlla dogalee mu am ko du tee mën na ko ba ci moom jëmmi xale bi nga xam ne reyaluñ ko woon dañuy sax même moom bu màggee te am ko bu ko neexee man naa rey ab gàtt nekkul nag ne da koy def aw xew déedéet dañuy def ab gàtt rek yéene ko ci rek rey ko mën naa am sax gi mën nañ ko bañ a xam yéene ko rey ko euh, su ko defee saraxe ci jox ci waa kër gi ñu togg fekk moom loolu la ci loolu la ci yéene am na nañu ne loola mën naa nekk wallahu aalam bu dee mbokk mi moom nee na dafa nekkoon ca bitim réew lépp xaalis banque Euh, xam naa li mu wax xaw naa bari ndax dana ñeenti million nee na ginnaaw ba nag banque ba daal di tëj ba mu demee ba am ak dogu bëgg a dogu ci jéem a fay nee na ñu xamal ko ne ko banque ba dafa tëj muy laaj moom nu muy def ba fay borom boobu waaw jëpp ma ne jàpp damaa nag boo gëstoo dëgg-dëgg ndax nga banque moom rawatina Europe nga xam ne seeni mbir ni muy leere am ay am ay delluwaay am ay nangam jàpp naa ne boo gëstu woon rek dana da am da am ay jeexit ca banque ba waaye tëj ba amoo fenn foo jaar nag damaa jàpp ne gëstu ba moo moo soriwul rek nga boo ñëwee ah banque bi naa nga ñu la tëj nga daal di yem foofu kooko doo ko gis waaye dëkk bu aw aw yoon nga xam ne seen lépp dañ koy organiser yaakaar naa boo demoon ca ñay yor loola wala nga dem ca gouvernement wala nga dem ca nangam leeral loola banque nangam bi fi amoon ndax banque moom boo tuddee tur rek ñu xam ko internet bi donc boo ci bindoon tur bi doonte tëj na boo bindoon tur bi donc ñu génneel la ko génneel ci ay information kon nag kooku na jéem a gëstu gëstu bu gën a xóot laaj ñang autorité ya wala gouvernement ba wala nangam bu gëstu rek du ñak mu am ci ay jeexit bu fekkee gëstu na ba soon amut na xool kilifa ya nga xam ne ñoo ñoo fa teewal nguur ga bu demee ca ñoom niki ci misaal bu demee ca ministère yi nga xam ne ñoo yor wàllu ak économie da ko koy jaral nag ndax da koy wóor ne dafa yor àqi jàmbur joo xam ne mën na ko diisal bàmmeel mën koy diisal bis penc da ko koy jaral waaye doo toog rek ana banque bi ñu ne tëj na nga daay toog daan ah man daal banque ba gisuma ko lool day mel ni joxoo ko yitte la joxoo ko yitte waxalaa kulin faaw nga dem gëstu ji bu baax a baax fañ ko war a gëstoo boo demee ca ñu yor économie wala ñu yor nàngam wala ca association yi jiite banque yi wala nàngam boo banque bii kat dafa tëj amee woon na ci nàngam jàpp naa ne faaw danañ la woon aw yoon am na keneen kuy laaj lu mel noonu ci fii ci Sénégal ne jamonoy Abdou Diouf moom it daa leboon banque mu tëj ba tey benn tontu bi rek la bi daal wala lu mel ne wàllu ña yor wàllu euh, nu ñu wàllu budget wala wàllu finance wala wàllu eh, impôt wala yu mel noona eh, yaakaar naa boo fa demee tudd banque ba dafa tëj nangam léegi ñu jox la ci ay xibaar eh, ne boo ci amee nangam kat mën ngaa dem barab nangam wala boog nga dem ci autorités yi faaw moom da nga ci am ay bunt waaw moom koy boo ko gisul rek day fekk di woo ci jéego ya nga ci war a def dëgg dëgg dëgg dëgg léegi nag mu def bu yàlla degaloon def nga ci mboolem jéego yoo am xamoo ko amoo ci amoo benn jeexit te yow bëgg ngaa fay kooku da nga koy saraxeel waaw da nga man ngaa fekk rek ñeenti daara daara daara ju nekk nga yëkkati jox ko jublu ci ne saraxel ngeen ko maa tudd daara yi waaye ñi mën a sarax bari nañu wallahu taala aalam bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj jaay ab ëmb lu mel ne xari laadum yi nga xam ne ñoo xew nga xam ne koo xam ne day ñëw daane xar yi bu ëmbee eh, jënd naa ko nangam loolu dëgganut loolu bokk na ci jëf yi nga xam ne ceddo yoo ñoo ko daan def lu jiitu yonante bi yonante bi salaa ñëw teere ko ba léegi nag nit ñi ñu koy def ab ëmb dee su ko jënd dañuy wax sax ne la xar mu ëmb sax boo koy jaay bul bul bul ca boole ëmb ba yow jaayal xar mi rek maanaam bul xar mii kat euh, dëgg la fukki junni la war a waaye comme daa ëmb léegi da nga cey teg trente mille ndax ëmb bi ndax ëmb bi yow xamoo dara ci loxol rek la nekk mën naa dee mën naa am sax da ngaa gis biir bi rëy nii rek waaye mën naa am fa dee na bu yàgg te yëgoo ko kon kenn du jaay loo xam ne euh, amoo ci ab xam-xam mënoo yëkkati daal koy joxe da ngay bàyyi ba mu am doom kay ngay jël doom ja mu leer nga jaay waaye nit ñi dañ koy def boo demee ci ñay yar ay laadum wala ay xeetu nag nag yi indo nagu nagu hollandais ak nangam euh, nag boo xam ne sax ëmbagul ñun léegi premier ëmb bi ëmb jaay ma ko yooyu dañ koy tere waaw ah, dañ koy tere ku koy jëfandikoo rek na la wóor na yaa ngi jëfandikoo lu lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere wallahu taala aalam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin de laaj yi nga xam ne moo ci desoon fas yéene ko mottali tey Euh, soxna su baax si day leerlu laaj bu jëm ci wàllu miraas mu ne koo xam ne daa faatu maanaam góor daal moo faatu nee na bàyyiwu fi ndey bàyyiwu fi bàyyi xam naa lim nañu bari ñim wax ne ñoom la fi bàyyi daal ñim jot a moo di ay rakk yu jigéen yu mbokkal ndey ak bàyyi maanaam moom góor gi faatu daal bàyyi na fi ay rakk yu jigéen yu mbokkal ndey ak bàyyi bàyyi na fi tamit jabar moo xam muy kenn wala muy mbooloo boobu ci doon rek mu solo waa ñi nga ñi nag am na ñu bari ñu ñu war a doon ñu xam ne tuddoo leen ñi nga lim ne bàyyiwu leen fi moo tax daanaka euh, laaju miraas moom day mel ne la cay mooy nit toogoon ñu fas yéenee miraas su ko defee mu laaj laaj bu gudd ndax day laaj lu sori ndax fi ne yow lim nga ndey ak baay lim nga yeneen rak yu góor waaye dégguma nga tudd bàyyi ko ndaw te bàyyi ko ndaw day doon maam bu fi nekkee mën naa doon bokk ci ñi nga lim nekkuñu fi euh, frère yooyu nga lim mooy ñu góor ñi bokkal ndey wala bàyyi ñooñu même bu fekkee duñ doon seeni doom mën nañoo doon kon daal yaatu na waaw kon yaatu na dana bëri koo limut bay woo ko xel fekk ne moom lay doon Euh, waaye nag comme nii nii la soxna si laaje ñu tontu rek lim laaj nii rek mooy daal bu fekkoon tey am na ko faat te yu fi kenn ku war a doon kudul ay rakk yu jigéen yu mbokkal ndey ak baay ak euh, soxnaam bu fekkoon ne nii la demee waaye nag wóoru ma nag ndax nii la demee ndax bari na ñu ñu tudd ci laaj bi ta ñooñu dañuy war nañoo mën nañoo doon waaye comme nii lañ laajal ñu tontoo noonu waaye su boobaa Euh, soxna si moom day jël li ñu tudde rubuuxu jëkkër bu faatoo bàyyi fi soxna te moom jëkkër ji amul doom amul sët su boobaa kon soxna si rubuuxu lañ koy jox rubuuxu mooy ab kaar buñ xaajoon alal ji lim fi bàyyi lépp buñ ko séddale woon ñeenti xaaj soxna si benn xaaj ba moo koy moom ci misaal mu gën a gàtt ci niiral mooy bu fekkoon waa ji faat dañoo xool alalam yëpp muy ñeenti million soxna si moom day jël benn million rek dem rakk yu jigéen ñi xam ne ñoom la fi bàyyi moo xam bu fekkee kenn la ndax man ni mu moom bari nañu ay la wax ay rakk yu jigéen yu mbokk baay loolu ñu tuddee shaqiqa kon su boobaa dañuy jël li wax sulusaani sulusaani la ñuy jël mooy alal nu mën a toll rek buñ ko xaajoon ñetti xaaj ñoom ñaari xaaje la ñuy jël wala nga ne buñ ko xaajoon juróom benn xaaj ñeenti xaaje ñoo ko jël li daal mënees nga ko tënk ci laaj bi nii nii waaye buñ demoon ba di ko miiraas nag dana gën a yaatu dana gën a dana gën a dana gën a xóot dara dees na laaj ba xam ñim ñim bàyyi ñeneen dëgg la ndey bàyyi li wax nga ëmb abayu leen fi amut doom amul ay rak yu góor ak yu mag yu góor waaye des na ñeneen ñu war a doon nag ñu war a doon dañoo yaatu bu fi ñii nepp daam ñeneen ñu war a ñëw Eh, kon la mirage kon non lay demee su ko defee bu féké dess na ñu xolaat ci mbokk yi ba xam amna ñu fi jéké te wara doon wala dét wallahu aalamu laaj bi ñu tege ba tey soxna ci moo koy laaj moy li ñu tudde mu né légui day am lég lég li ñu tuddee donn soxna waaw jigen borom kan day faatu mu dem ba eh, iddew ba idda ji jek jek rek daan ne wa soxna ci soxna ci jox nañ ko diw mën ta nek nekk mën ta nek jigen kenn du ko donn donte ci wolof dees na ko wax nii waxin la rek bu fekkee lañ jublu ca doon ko mooy takk ko laaj soxna sa ba xam bëgg na bu dee bëgg na ñu laaj kañ koy may ñu génn ak can maanaam daal kafaatoo fam jaaroon dong ku ko bëgg a takk takk daal la tudd amul doon amul dara takk daal la tudd takk jigéen bu jëkkëram faatoo lañ koy def takk lay doon waaye jekk-jekk daal ne diw jox nañ ko diw noonu amul can amul dara loolu du sëy loolu du am sëy de baaxul loolu du sëy kon mag ñi nga xam ne taamu nañ koo def jekk-jekk rek naan jabari doono jabari doono jàppal ne même bu fekkee baatu olof bi da ko tuddee doon waaye jigéen kenn du ko doon doomu aadama dee su ko doon jigéen kenn du ko doon ci wàllu sëy dees koy takk ka faatu daal yoon woom jaaroon ba tax mu nekk jabaram ku ko ba bëggaat yoon woowu képp nga mën a jaar waaye du lu ñuy sarxe luñ jël rek ne jël diw jox nañ ko nanga déedéet bu mbokkee dajaloo nag laaj ko nag ah dañ laa bëggoon jox diw ah diw ñu ne ko dañ laa bëggoon a jox soxna nga mën a waaw ah ñu génn ak can waaw ci biir mbokk gi joxe ko waaw kon moom takk nañ ko takk takk ka jaari yoon amaa soxna si wax ne dañ koy takk du am can du am dara loolu kon du ab sëy tu tudd du ab sëy laa nikaaha illaa bi waliyin la bokk yonent bi ne benn sëy mënta baax lu dul ne ak can daa bokk ca yay taxaw ba noppi wallahu a'lam laaj bi tege mbokk mi laaj ne dafa am koo xam ne bàjjanam da koy lor maanaam daal xëy na daa nekk ci kër gi ak bàjjanam bàjjanam di ko lor mu ne léeg le mu cay waxtaan ak moom mu ne ndax jëmmi waxtaan wooyee day nekk jëw a ah bu fekkee dafa nekk waxtaan wu objectif bu dee ay nettali nii rek jëw la de ah bu dee nettali nii rek let nettali ah maire bi ni mu bone eh, nangam keroog damaa ñëw lool jëw la waaw la waaw uh-huh. ndax yaa ngi mooy sulli ay jikkoom bu fekkee rek daa nekk waxtaanu waxtaanu ka nga war a waxtaanal ngir ngeen jël ci ay solution kon loolu moom solution la amaa di ko di ndax loolu amul njariñ toog nii ko waxtaan maire bi daa bon daa def nii bi amul njariñ nag lim la def day day dem ci ay kilifaam ña ko mën a lijjanti ñu toog ñu toog ah soxna si kat am nu ma nekkee kër gi daf may def nangam daf may dóor wala du ma may añ du ma may ma ko mu leer loolu moom du nekk war ko lijjanti amaa nag di ko di ko ñurum toote yow nangoo ko wax ci kaw nga ne te kay nettali kat mën naa mu nettali ba nettali lu ëpp loola ak di ko tuddal ay baal yu ñaan ak nangam nangam loola baaxut ndax amul njariñ kok amul jëriñ faaw dañ ko dañ nañ ko jaarale fañ ko wara jaar wax ko ñako wara yek a yëg ñu toog lijjanti ko mu jeex waaw loolu mosu boobaa du nekk jëw wallahu euh mbokk mi ci tege day laaj ku sangu janaba ba agal far laal ab kayam wa loolu sang cangaayal janaba ja moom baax na dara sikku ci legi nak moy xol bu fekke da bëgg bu génnee dem julli ci mo bëgg japp kon man na japp waaye bu fekkee soxlawul julli soxlawul def dara luy laaj am njàpp moom kooka dara newu ci da ngaa janaba moom boo ci defee luy yàq njàppit jotewut ak janaba ca dara janaba moom bokkut ak jàpp jàpp moom ay laal sàkkaraak tuur ndox ak yooye da koy yàq moom jàpp waaye sangu jarab rek loolu mënu koo yàq sangu jarab moom sëyaat wala génn ma niyu képp moo koy yàqaat nga war a dem sangu jiwaat léegi nag kii sangu janaba ba mu yàgg wala mu sangu jarab ba àggal laal sawukaayam kon ca ngaye loola mu du ca mën a julli kon bu bëggee julli faaw dina jàppaat lool rek la bëgg julli wala mu bëgg laal alquran waaye tàngaay la moom yokku ca dara wallahu aalam mbokk mi muy leeral mu ne koo xam ne ay oomam day metti nga xam ne xëy na buy julli ni mu war a tooge wala na mu war a sujjoote bu ko defee day metti waaw ko subaa ko dañ na def la man rek daal na xam na xool loo xam ne bu ko defee lu loru mu def loola jàpp na lool noonu la ko lislaam sant sax du ci jële dara nag lu dul julli ko wér fekkee defaatu dara lu yàq julli daal loolu mu mënta yàq dara julleem tey loolu sax lañ ko sant nag sa santuñ kenn ngay lor sa bopp di sa oom yi di métti ngay sukk sukkin woo xam ne wóor na lii baaxul ci yow a dañ koy tere ndax day yàq ci wér gu yaram tam faju ci nag wallahu mbokk mi laaj mu ne dafa nekk bitim réew mu gis na waxtu suba yi day wuute maanaam heure heure yi di nodd wala heure yi nodd wala xëy na seen application yi mu ne ndax ma naa xool heure bu ko neex rek sëñ la neex amu ci lislaam lislaam doo wax lu ma neex loolu amu ci damaa jàpp ne dafa Euh, waxin wee dëng rek waaye daa ma jàpp ne daa bëgg a wax rek ndax mën naa xool benn ci heure yi rek waa da ngay gëstu waaw da ngay gëstu ba xool heure boo xam ne jàpp nga ne heure bii daal moo wér wala boog nga jël nga jël heure bu digg doomu jàkka yi teel a nodd bu leen roy yi yéex a bu leen roy bu leen topp xoolal jàkka yi nodd ci diggante bi nga jël yooya bu fekkoon ne euh, misaal mi may joxe bu fekkoon da ci am jàkka joo xam ne moom quatre heures mu daal nodd waaw kooku bu a jël bu waaw ak koo xam ne moom cinq heures demi mu nodd ba tey kooku bu ko rey jëlal ki ci digg bi jëlal koo xam ne cinq heures zéro wala cinq heures mooy mu nodd li nag misaal la waxuma ne heure yooyu ngeen julli foofu de dama lay jox misaal rek waaw maanaam daal jàkka yi nga xam ne moom dañuy njëkk a nodd kooku bu roy ci ñoom ñi mujj a nodd bu roy ci ñoom xoolal ñi ci digg bi soo nga réglé sa heure di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom waaw ndem mënoo xam ban heure moo ci wér wallahu aalam euh, bokku na ci ab laajamit nee na day gis leel ak jàng yi jàng yi jigéen daanu ay góor di ko téye te mu déggoo ñu ne góor wërta laal jigéen waaw wërta laal jigéen jublu ca bànneex jublu ca bànneex waaw waaye foofu jafe-jafe bi du jigéen ci daan de maa jëmmi yi ya lañ war a xoolaat waaw jàng yoo xam ne jigéen da cee dem de daanu dañ xoolaat jàng yooyu ba xam yumu waaw bari na jàng yu aram de lool sax lool bari na jàng yu aram lool yoo xam ne daanaka su ak dem ca feccukaay yaag yooya aw jàng yoo xam ay jigéen dañ fay nekk di fecc ka sëlëx sëlëxeeg nangam nañu war a solo duñ soloo noona te lu bon lu ne man faa am loola tudd gañ cee tudd diine sax day tax mu gën a bon kon nag xeet yi ñuy organiser di ko tuddee lislaam wala ñu koy tudd ci yenn tarixa yi bari na ci yoo xam ne lislaam set na ca ba set wecc wax dëgg ay jàng bu waree bu melee war a mel jigéen daanu ca du yomb de ak góor daanu ci sax nag waaw bu fekkee jàng fàttali rek lay doon bu dee kooku ab taalibe la bu dee jàngee mu xool dundinu sëriñ tuba radiyallahu nu mu doon dunde wan yoon la jaar ba am yàlla num mu bëggoon yorante bi loola kenn du ca daanu ñaare wala boobu kuy daanu daanu joy rek lay doon du daan daanu daanu ñu koy téye bu dee da ngaa woote ci cërul islam it bu fekkee toog nga fa di wax l'islam lim bëgg ak lim bañ jikko yi yàqu yi nu ñuy fexe ba defar ko waaw ah, diggante yu yàqu yi jëkkër ak jabar fase mi nangam nangam nu ñu war a fonk julli loola kenn du ca daanu moom it kon bu ca daanu amee rek mooy nañ xoolaat jëmmi jàng yooya yumu jàngu ya maa dajal ay nit di sëllëx sëllëxi di di tëgg ka fecci wala ba kay jàng di fox su ko def jigéen ñi jóg di wër di def nangam loola lu ko gën a xaraam amut loolu dëgganut doon dana xew na loolu ñu di ko def waaye baaxut de ndax du diine jotewut ak diine dara tayit day bokk ci yëfi seytaane dañ da ci bokk la gën a bon nag mooy nit ki di def dara jàpp ne baax na fekk nag loola bon na loolu nag mooy la yées ndax loolu mooy pertement waaw am na ñoo xam dañuy def ne tu tur tur tur wuñ ko tuddee maanaam buñ ne ay jàng rek nga moom turu ay jàng lañ tudd rek mooy lu baax la déedéet ko mën a tuddee lañ lañ fay def rek fekkee ne dañoo nit ñi dañoo toog ñuy waxtaan ci seen diina lu leen jëriñ ba ku fa jóge waaru loolu alhamdulilah ci diina la bokk waaye tur woo ko mën a tuddee jàng ak ak màggal la ak nangam la loo ko mën a tuddee waaye bañ xoolee la nga fay def lépp muy ay yu xaraam di ci am ay tëgg jaxasoo góor ak jigéen loola dafa am loola dëgërut dëgërut waxuntuma jigéen di fa dem nag ba ca dege moy jigen ñi ñu bare bare ndaysan dañu wax desee xam ñu bare dañuy defe ne ndekam tudd na ay jang ñom lañ ca war dem da nga jigéen yoo dañuy fanaan ba bët set ta bul fàtte ne jigéen julli aljuma dongo bu dee ab xam ni dañ ko ko téré julli aljuma a julli aljuma mo ne ci diina la bok lepp diina la ay tudd yàllaa fa nekk waye dañ ko ko téré ngir lan bañ rek jigen di genn genné ba leneen defa xaj al imam marin wala taxruju ilayha ashaba borom defa la waxe ab jang kon jigen waj ba jek dem tok ne sollu lele léeg bëgg gis leema lele mu jóg dem jaagal jaagal maye nangam ngir bëgg gis leema yoy yooyu dañ ko téré jigen waaye du dé jigen ñi dañuy defe mom moom dagan na ba ay jàng la rek jang yaak cyant yaak gàmm ga lum ci mara don doon wa du ca dara donte woyé nañ ko lola waaye lañ fay def daanaka su suré wut ak lañu défé di daano ko def ay yef lola lepp kon dem ca lola mo ñëk haram ba ca teg moy jigen dañ ko téré ay yenn xétu génni yi jigen ji rek dañ na dama am daayira daayira señ nangam ah, laxasaayu dem jaxasoo góor xëy suba nekk fa suba ba ci ngoon defe na ma ngay def lu baax rek la muy def lu ci ëpp lu xaraam la sa sàmmuwut ak la ko diineem sant kon jigéen na toog këram bu dee day jàng mu jàng wàcce toog këram ba keroog ñu may ko jëkkër mu toog kër jëkkëram waaye jàng damay dem cant mbuur damay dem euh, gàmm barab sàngam dem fa doo ànd ak kenn ko la araamate même aj màkka sax nga ne jaamu yàlla la dañoo ne jigéen bu koy def bu mënta ànd ak ay kojog araamaleen nga ne ay jaamur yu góor képp la la mën a àndal soit da koy tere waxantumaag nag ay yi nga xam ne ñoo ko créé suñ bopp wallahu taala aalamu sawaaba euh, bu dee laaj bi ci mujj nag mbokk mi laaj koo xam ne dafa defoon bàkkaaru njaalo yal na yàlla jéggal ko te jéggal nu mun waaye da koo réccu lool bëgg a tuub nu muy def waaw bu fekkee réccu na ko ca xolam day daanaka na jàpp ne moom loola daanaka tàmbali na tuub ga ndax tuub moom bokk na ca sarte mooy réccu réccu gi nag mooy lii kat daf ma rëcc waaye bu saytaane ma man rek waaye bu yàlla at dëppaatoon adduna arrière adduna bu ma ci ak saatee ak nii ma xeloo nii sama xel mi ma àndal du ma ko def mukk yéene tamit bala fii ba ba muy faatu du delluwaat ca mooy googee du delluwaat ca mooy gu nurook moom waaw ba noppi nag am ak dogu nag am ak dogu kon rëccu bàyyi lam doon def fas yéene ba ba muy faatu du delloote ci loola loolu bu ko defee rek na rafet jot na suñ borom jéggal na ko léegi nag man naa tëdd ba guddi mu jàpp jàpp mu sell julli ñaari rakk yoo xam ne ñaari rakkee tuub la ci jublu waaw su ko defee jéggulu suñ borom suñ borom de yow yaa araamaloon nangam ak nangam ndax seytaane na ma ba ma def ko maa ngi ñëw di toroxlu ci di ñaan nga jéggal ma ko te ñaan nga dimbali ma ba lu mel nii ak lu ko nur du ma ci dellu si mukk loolu bu ko defee rek na rafet njot na suñ borom jéggal na ko ko te wattandi ko seytaane ja di ko nax léeg nit ki mën naa def bàkkaar seytaane nax ko bam sax ca bakkar ba lim moy la moy da nga ah yow kay yàqule nga rek yow lu bon li nga def ko nangam yow kay mom su ko defee nag seytaan day bëgg mu continuer ca mon nga yow kay xam nga li yàlla du la ko jéggal yow kay li ali da bay ma nga far ko continuer rek nga xam ne moom doo baaxale su ko defee nga ah comme man yàqule naa naa far continuer loolu bul ko nang ko bul ko nangu boo tuubee daal jàppal na yàlla jéggal na la nga rafetal sa tuub te lépp lu la mën a jëme ca mooy googee bu dee kooke da ngeen am relation da ngeen faral di jokkoo da ngeen fa lépp lu la mën a attiré ba saxel nekkaa ca loolu da nga koy dakk da ngaa wax sabab da nga koy tëj nga ne benn relation ndax kat bari na bàkkaar booy def nii da nga ko rëcc nii waaye bu ci kanamee seytaan mën na laa mënaat wala nga gisaat kooka wala bu de jigéen la nga xoolaat fotoom xooloon nangam loolu mën naa de mën na laa delloo ca loola wallahu taala alamu sawaab wa ilayhi almarji walmaab hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain lii moo fi dajaloon ci ay laaj yu rab yu doon jéem a laabirante lépp lu ci jub ci ndimbalal sunu borom subhanahu wa taala la lepp lo xamne ne te la lolou mata dik doom adam la yalla sa borom jéggal nuko allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad bismillah alhamdulillah bude laaj bi tege mbok mi leerlu neena ko xamne dafa dafa am ñaari tudd yu xawa jege maanaam ci benn semaine bi benn genn ayu bis niki ki daa am doom ñu tek ci ñaari fan ke am doom lu ci l'islam jangale lam ci jàngale won dong la ci jàngale lislaam amul lu muy soppi maanaam nit ñi dañuy bëgg lislaam soppi programme am ngir xool ñoom lu leen arrangé ndax xam nga kooku day bëgg naan waaw naa jël bee teg ko ci bee nangam lislaam moom lam santaane woon donc ñun nag ñoo diisal tudd bam mu diis nga xam ne diis googu moo ñu ciy lor te diis gi moom lislaam tegunu ko waaw lislaam waxuñu bu ngeen a tudd dajale leen nit ñi def leen nangam yooyu ñoon ñoo ko defa bopp lislaam tudd la santaane waaye santaane woon ngénte ñu li ñuy tuddee ngénte dajalo nit ñi togg ci lu ne nga togg ko su ko defee dacc def ci loo man ak loo mënut loolu noo ko teg suñu bopp waaye lislaam bu doon ne dañoo yem ca lam ñu jàngal kon lii amul benn problème kee am na doom tey la juróom-ñaari fanam rayal ko am xar xar mi nga saraxe ca ñu togg ci nga tibb ci dëkkandoo ndoy jeex na xeer yow suba ginnaawaar ginnaaw suba kee moom la tuddam rayal ko am xar bu fekkee man nga ko nga xam nga fa nga bàyyi xel nag ne bu fekkee man nga ko ndax tudd mi kenn forci wulu ko du farata boo ko manee la su ko defee loolu mën naa cee tontuwaale sax mbokk mee di laaj euh, koo xam ne dafa am ñaari doom te amul lu dul menn xar mu ne ndax menn xar mi mën na koo rayal ngir ñaari doom yi déedéet loolu mënta nekk menn xar mu kenn rek nga ko mën a rayal ka ca nga xam ne amoo mu jeex waaw kenn rek nga ko mën a rayal ndax am tudd moom la cay sunna mooy doom ju nekk da nga koy rayal am xar doon dina nga am ay seexit ku nekk da nga koy rayal am xaru boppam bu fekkee mën na ko mën nga ko nag boo ko mënul bu ci sonn ñu naan la ay ñàkk ko rayal xar déedéet boo ko mënul rek bàyyi am na sax yoo xam dañ dañoo jàpp ne rey xar mi dañ koo sopp doonte sunna si moo gën a wér sunna si moo ndax bu fekkoon farata la day metti tabaski mi gën a rëy sax gis nga sunna la defuñu ko muy farata kon nag boo amee ñaari doom boo ko mënee doom ju nekk am xar boo ko mënut benn xar nga am rayal ko kenn ki mu jeex ka ca nga xam ne amoo insha allahu yi kon kooku tontuwaale nañ ko foofu waaye mënoo rey benn xar nag naan boole naa ko ñaar ñi su ko defee ne yow mi nga xam ne da ngaa am ñaari tudd ci semaine bi l'islam moom sottiwu dara ku nekk daal am tuddam bu ci tee rayal ko xar def la ngay dem bu dee nag da ngaa bëgg a ngénte bu la neexee boo rayalee xar ku njëkk ci bu la neexee nga jël xar mi denc ko kooku moom sa mbirum bopp la ah, bu la neexee nga bañ a def dara ah, loolu moom loolu moom sa système bopp la amul loolu l'islam amu ci jafe-jafe waaw ah, yow daal gaawu am nga am tudd alterné nga am am tudd bu la neexee bu gaaw jotee yow defal la lislaam santaane rek nañ wat liir bi nañ ko tudd nañ rend am xar bu la neexee xar mi denc ko waaw denc ko ba ginnaaw suba bu ginnaaw subaa nag ka def des buñ ko rayalee am xar ba defal ko am tuddam xumbaay yi nga bëgg nga xam ne yow sa mbirum bopp la wala boog nun suñu mbirum bopp la bu la neexee nga daal di boole ñaari ngeen yëpp def say xumbaay xumbaay yi moom ñun ñoo ko moom ñun suñu fi bopp la du lislaam bu fekkee xumbaay nag day am yu yu araam ak nangam kon lislaam araamal bu dee xëy na ak noos dong la dajaloo lekk nangam nangam nangam nangam ah daggan na rek ci kaatoor lay dugg kon yooyu moom jimmi tudd mi jimmi ngént li bu la neexee nga àndale bee taqale bee ndax loolu du lislaam jimmi tudd mi nag li ci lislaam bëgg mooy wat liir beeg tudd ko turu rafet ak rayal ko am xar loolu moom daal na am rek moo xam nag noo koy organisé wallahu aalam mbokk mi leer lu ñi nga xam ne dañuy rëbb ay picc di leen jaayaat rëbb ay picc di leen def ci ay kaaf su ko defee ñenn ñi ñëw di jënd ay picc ñenn ñi moom dañuy yor picc mi di ñaan seen i suxalaat yu mel noona bu dee ki nga xam ne day rëbb am picc di ko jaayaat ngir xëy na di ci wut xaalis loola dagat na ndax xeeti bàyyima yi ja dem rëbb leen di leen jàpp di ci jariñu moo xam da koy lekk moo xam da nga wut xaalis di ci wut sa dund loola ayut loola dagat na dara nekku ci incha allah amma ki ñëw di ko jënd bu dee da koy jënd ngir yàlla ngir libéré leen bàyyi leen ñu dem xëy na ngir fori fori ba tey kooka lam def lam def baax na lam def baax na waaye nag dañuy bañ daal nga def ci ay gëm jàpp ne ngir sa aajo faju faaw da ngay jàpp am picc ñaan ci nangam loolu gëm-gëm yooyu nag lislaam da koy wallahu aalam mbokk mi laaj suuf ndax dees na ko miiraas ndax nee na kajoor gam dëkk mbokk mi laaj moo ko laaj nag booy kajoor fu ma njàmbur la wax fa mu dëkk daal ñoom suuf de duñ ko miiraas waaw lu ñuy miiraas ak lu ñu dul miiraas moom amut ci lislaam lislaam moom lépp lu waaji moomoon bu faatoo dañ ko war a miiraas lim wax nak amna du du kajoor ak eh, njambor kesse yaatu nak bari na ci ay barab yo xamne bu ñu miraas dañ jigen du doon suuf lolé toñ deug la mom wala ku ko def na la war lek nga ak jambo takat ay kilifa jo koy def ngir seen seen ñak xam jigen du doon suuf wa ko la wax bu dé sa waxi bop wa kay waye bu dé alquran ak waxi yoronte bi ak miraas nim jangalé mom jigen nak goor ak yépp ñoo ci suuf ci suuf kon lolu dindi kaddu yalla la dindi atteeb l'islam la waye xagn jigen akam la kon ki faatu bu faato bayyi fa ay tol tol yaak fas yaag euh, de nga ala jim fi bàyyeeg bitig beeg oto beeg kër geeg lepp ñepp ko bok jigen ak goor ñoo ci yemoo kott kon bu re man dama soxla tol yi da ko bëgg jënd dañ ko kay dañ ko ko wara jaay waye nak ne tol yi goor ñu do nga koy moom ba fu ngeen ko tek waaw def na mat na leer moy yow mi nga xam da nga ne suuf jigéen du ko doon buñ la laajee na waaye yow loolu koo ko wax ndax te ndax yàllaa ko wax wala yonant bi kan moo jël dogal boobu kan moo jël dogal xañ jigéen ay tool kan moo ko def xanaa yow yow mi ko wax foo ko sukkandikoo fenn lu naa ko ak moo fi xew fii moo fi am loolu nag duxut ci lislaam lislaam da nga naan ñii la ko yàlla jàngalee ñii la ko yonante bi jàngalee moo tax bari na ay dëkk dëkkaan yoo xam ne li ñu yor ci ay àqi jàmbur ci ay jigéen ñu ñu nangu seen suuf sukkandiku foofu kenn xamul nu mu loolu njuumte lu rëy rëy rëy la am na ci ay barab yoo xam ne sax ñoom daanaka maa ngi fàttaliku sun Euh, sëriñu daar bu baax sëriñu Ousmane Mbacke mas na maa nettali lu mel noonu barab bu mu demoon di fa miraas ba mi miraas ba den ca tool ñu ne ko ah déet tool nag moom fii duñ ko doon waaye waaye daw ma ne ko mbate yéen yor seen luwaa bopp mu ne leen déet lislaam nag moom xamut loolu lislaam tool nangam nangam waaw waaye mujj na rek mujj na rek mu di leen wax di leen wax bañ xam ne ndekete ñoom kat liñ doon def seen yëfi bopp rek ñoom ñoo ko aadoo di ko def te lislaam nag ndigal yi ma ngay bëgg ma ngay bàyyi ko fa yàlla ñu doog a nangu mu miraas ko jox jigéen ñi seen àq man a jigéen ñooñu rek keroog danañ kontaan danañ xam ne yàgg nañ leen a tooñ de yàgg nañ leen a tooñ nag te lii ay kilifa ay borom dëkk ay kilifa wax dëgg yàlla yi dem ca jàkka ja di julleeg yëpp ñooy def lu jël ay doxal yu mel nii nga xam ne seen doxali bopp la teguñu ko fenn ca diine loolu ëpp naa def wallahu aalam bu dee laaj bi tey mbokk mi laaj ne waaw koo xam ne nit ñi dañ koo dañoo rafet ci moom njort di ko yéem waaw di wax ne mel nangam daal gis boppam wala dara loolu de Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu da caa jàng doon bind boo xam ne doy na sëkk dafa waxoon ne bu fekkee ne nit ñi dañ laa tagg dañ lay tagg maanaam am na lu ñuy wax ci yow yow yaay xool rek xam nga nit ñi mu xamuñ dara ñoom dañuy wax li ñu yaakaar yaay seet lii nit ñi di wax ndax dëgg la wala du dëgg yow am nga ci lu leer naññ bali linsaanu ala nafsihi basira bu fekkee xam nga ne ah wax dëgg yàlla nit ñi de li ñuy wax ay la dëgg la nee na su boobaa santal yàlla yàlla mi dogal ñu ne diw daa baax diw day daa tabe diw daa bëgg diine far yàlla dogal ne loola noonu la amee ci yow kooka bàyyil xel ne loolu kat yow tëgguñu la yàlla la ñuy tagg ndax yàlla ko def ci yow du yow du sa njàmbaaru bopp kon li nit ñi wax jël ko nga delloo ko yàlla ba yow bu ci gis sa bopp de waaw jàpp na man de xam naa bu yàlla dogalee ma tamee man a joxe loolu du ci man loolu ci yàlla la kon yow bul nangoo jël tagg bi ko yàlla bu la yàlla dimbalee nga jàng xam di góor góorgóor di jëfee di julli di def nangam bàyyil xel na loolu lu sa coobare de yàlla la kon jëlal tagg bi mu dellu ci yàlla kon yow doo ci gis yow loolu euh, doo ci sa bopp de <laughs> ji moom yow defoo ko ci yàlla la suñu borom subhanahu wa taala kon nga sant ci yàlla ñaaral bi mooy nga ñaan yàlla mu saxal la ci mooy ñoom nit ñi lay tagg dañ laa wax ne la yow kat yaa ngi ci yoonu baax wi yaa ngi ci kon nag bul ci jug ñoom loolu lañ la wax ñoom dafa mel ne yàlla leen yónni ñu bëgg laa xamal ne yaa ngi ci yoonu baax yi kon bul ci jóg kon benn santal yàlla mi nga xam ne moo awale ci yow jëf ji ñaareel bi kon xamal ne loolu mooy yoonu baax bi yoon woo boo ci jaaree nit ñu baax ñëpp di la tagg xamal ne mooy yoonu baax nga bañ caa jugati ñaan yàlla mu bañ la caa jëlee bu fekkee nag nit ñi dañ laa tagg te fekk liñ la taggee nekkul ci yow diw daa bëgg diine yow nga yëg ne bëggoo diine waaw diw daa laabiir nga yëg ne yow laabiiroo diw daa tabe nga yëg na yow tabe woo waaw ah, kon nit ñi li la tagge nekkul ci yow su boobaa loola kersa la war a doon ci yow jëlal bint mooy xamale nit ñi dañ laa bëgg a wax ne jikko yi ñu la tagg yëpp ay jikko yu baax la te nekkul ci yow góorgóorlu mu nekk ci yow message boobu la leen yàlla yónni lisaanu xaal la mooy nit ñi dañ laa bëgg wax ne julli da baax na lool fonk ko waaw ah, ñu tagg la naan da ngaa fonk julli mooy yow fonkoo julli da bay bu nga fonk ko ñoom lañ loolu lañ la bëgg a wax kon loolu mooy bind bi nga yëg ne ñii yàlla leen yabal ngir ñu fàttali ma ne ma yii ay jikko yu baax la te amaguma ko kon nag naa góorgóor ba am ko noonu ko sëñ Tuubaa yàlla fayal na ko allahu aalam bu mbokk mi leerlu ah, ne day dégg ñu naan góor maanaam xale bu góor wërta nàmpu ñaari at ah, te mu ne bu dee alquran fam naan walwalidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni xam naa mbokk mi laaj na moom foofa la yem te wax ji yemul foofu alxuraan yokk na ci liman arada an yutima rabaa te loolu boo ko bàyyee wax ju du mat te moom booy booy wax da ngay tàmbalee ci tàmbalikaay jeexale ci jeexalukaay bu dul loolu da ngay dagg wax ji te wax boo ko daggee rek lam lam bëggoon wax yow kon day daal di euh, day daal di gàtt ni nga ko fiiree tamit ne alxuraan nee na nàmpal leen seen doom yi déedéet alxuraan waxut loolu néewut nàmpal leen seen doom yi ñaari at ndax bu ko waxaan lool kon day doon farata day doon day doon day doon farata waaw ndax li man arada ay yutima radaa kon awalan alxuraan la ne waajur yu jigéen yi day ku ci bëgg ku ci bëgg nàmpal nàmpal gu mat ku ci bëgg nàmpal nàmpal gu mat waaw ah, kay mën naa na man mën nañoo nàmpal seen doom yi ba ñaari at waaw ku ci bëgg nàmpal nàmpal boo xam ne gu mat sëkk lay doon su baa kooku ñooñu mën nañee nàmpal seen doom ba sax ñaari at loolu forcé wuñ leen ni leen faaw nàmpaleen seen doom ñaari at moo tax wàllu nàmpal bu dee lislaam da ci am ak jàppandi lool yooyu nit ñi di wax nag naan euh, gone gu góor na loolu moom seen xalaat la loolu moom nekkul ne faaw dañ ko war a def wala dañ ko war a bàyyi nit ñi ñoo xor lan moo ci yéwén nampal daal dañu wax ne liir bi wala xale bi na jëfandikoo soowum yaayam ba keroog yàlla dogal ñu yëg ne moom mii de war naa mën a bàyyi soowum yaayam mii tey lekk ci li nit ñiy lekk loolu heure bu ñu demee ba yëg ko rek mën nañ ko arrêté foofu amut ab ab diisul wax ne daa war a namp ñaari at wala weer ak nang déedéet loolu nit ñi ñooy xool rek seeni tolloole waaw ku ci sa doom namp daal ba muy góor muy jigéen mu namp ba namp loo xam ne war a lekk ak a naan ni ko insha allahu rabbi bu la area nga arrêté namp ga moy na loolu amu ci ben jaxañal kon teunku ci kenn amu ab tak tak mu ñaan bi la war nit ñi nak ñoy wax na bu dé jigen nangam la bu dé góor nangam la bu dé nangam nangam la yoy lu ci nit ñi teural da nga gis na lu bax la dañ ko tek ci hikma xeyna gis na li kat buñ ci yagge jaar dana bax lolu su buba lolu ayit dara neew ci waye bu japp ne alcorane da leen teunk rek ne faaw ngeen def nangam wallahu a'lam bu dee laaj bi mbok mi leerlu nee bu dee ci mazhabu imam malik daanaka moom la bëgg a wax nga xam ne dañuy tere eh, ajjuma bu imam yéegee ci minbar bi ngay naati la ñoom dañ koy tere muy laaj tere gi maanaam fan lañ koy teree dëgg-dëgg ah tere gi mooy li nga waxee rek waaw ah, sëñ tubaa na wa naflu in jalasa minbari imaamu jumaatin faqat kurhun duri bu imam xasee ba toog ci minbar bi foofu rek jaan foofa lañ ko tàmbalee di ko sib foofu moom boo ñëwee dañoo sib ngay naafi ci ngiru malik bu imaam dee xutba nag day araam moom bu imaam dee xutba kooku moom day xaraam waaye bu fekkee imaam daa ñëw rek toog ci jàkka ji toog ci jumaa ji noonu nga xam ne yéegagut moo xam dañ ko wutal am néeg moo xam amul am néeg daa am ruq bu muy rek kooku subaa kenn téréwu ko ku ñëw rek mën ngaa def sa mooy nuyu jàkka ji insha allahu rabbi imaam nag mënees na ko wutal am néeg bu muy nekk euh, mën naa amit mu am benn ruq rek boo xam ne bu ñëwee fa toog moom ba yàlla dogal julli jot mu daal di yéeg ndax moom bu yéegee toog rek dañoo war a nodd looloo tax wallahu aalam mbokk mi laaj koo xam ne dafa amee bor boru julli ñaari fan ñaari fan nee na mu góoru ba fay benn fan ba beneen fan ba ndax da ko war a daal di fay fi saasa wala boog mën naa ne naa xaar ba julli nangam jot ma fay nangam wala julli nangam jot ma fay maanaam organiser ko daal Euh, awalan mooy nu wattandiku amee ay bor loolu moom moo ca jiitu mooy bori julli nañ ko wattandiku di ko di ko amee ndax lay tax lu mel ne ñaari fan nit ki amee ko moom mat naa seet kon bu fekkee ne la tax mu amee ko daal ngant la moom nag moo xam ngant la la ba xam daa feebaroon bu mënta yëg ndax même ku feebar sax dañ ko wutal nu muy jullee waaw même saxaaba yi doon xare ci yoonu yàlla sax dañ ne leen bu jullu jote na ngeen julli waaw na ngeen julli waaw ak ca na ngeen ko mane kon nga xam ne julli oyofut ki ne ci yoon yàlla bi xeex sa bu julli yitee duñ la ko faaral duñ dañ na ko na nga julli ci ni nga mane ke feebar tëdd nee nañ ko nga julli dama ci aljawharu nafis sañ tuba jàngal na la julli ko feebar salaatul maridi ya min qiyamin wa julusin wa nangam kon julli mayuñu kenn mu di ko faat waaye bu yàlla dogalee nit ki faat ko suba dañ naa ko faaw da koy fay fi saasa kenn du ko kenn du ko xaar loo maanaam doo mën wax ne fi mu toll démb euh, démb julliwuma wenn waxtu léegi nag man daal damaa bëgg xaar ba tisbaar ma def naa déedéet dañoo bëgg léegi nga jóg julli ko léegi léegi ndax juróomi julli la yom naa fay kenn du la may dara waaw kon nag nga fay ko ba noppi gaawee fay ga kooku ñaar lañ la sant benn bi fay ko ñaare bi bi fawrin boo may ci waaw bu demee ci sëñ tubaab da la koy wax xadaa uma fi zimmatin nga fay bor yi nga amee ci julli bi fawrin ba noppi nga gaaw ko def bañ koo yeexe doon damay xaar nangam déedéet ndax kat boo nee damay xaar ba tisbaar waaw ku la wax tisbaar fi la lay fekk <laughs> ku benn gaarat ne lay fekk kon fay gi da nga koy gaawe foofu ñu nettali fii xista bu yéeme yéeme bàyyi ko suñu abdourahman abdul qudus menn mbokk mi ñu nettali ne suñu abdourahman yal na yàlla dolli koy ngërëm ak i leer dafa mas a nekk ci bota am ñoom àndal ñu ne tuubaa la ñu jëm si woon kon daa mel kon daaru lañu jóge woon xay na ci mbokk mi ni mu ko nettalee nee na bi ñu demee yàgg julli jot taxul nag ma xam gan julli la nee na sëñ Abdourahman ne sëfoor bi ah, daa mel de julli jot na xëy na daal ngir bëgg ko wax ne ko nan taxaw julli waaye ka doon dawal ne ko waaw jot na de waaye mën nañoo àgg Tuubaa tam muxtaar mi du jeex waaw ah, xam nga loolu xel nangu na ko sax waaw ah, maanaam daal mën nañoo continuer dem ba Tuubaa te du tax waxtu wi génn te du tee ñu mën a julli waaye sëñ Abdou moom moom tabarkàlla day ko kiimaane bu fekke yow mom woor woor na la ne am nga dogo am nga yaqin ne di nga àgg tuuba fekke am nga ci lula leer kon ñun ñim woor ñun ñi nga xam mo moom wóoruñu xam bakkar man na rob jamono ju mën doon may na nun ñu julli ah, lool wax ju kawé kawé la ta lim ko wax moy deug waji lim wax demee la yenoon mana ndax comme ñi ngi dogo noddu xëy na mën dawal àgg tuuba fekke waxtu du jeex waye nak waaw kula ko kula wax da nga àgg tuuba ñaata nit départ seen auto japp ne dinañ ag dekk nangam fa aguñu fa ah armée la lañ dem waaw léegi ñooña bu fekkee ne daa am waxtu wuñu waroon julli julli wuñ ko yóbbaale nañ ko faatuwaale nañ ko kon loolu sa mu xeram ak euh, fi mu toll yàlla may na ko mu bàyyi xel loola bàyyi xel na ko loolu dëgg la mën nañoo àgg tuubaat waaye nag ku ñu wax ne danañ fa mooy amul dara loolu wér na danañ àgg tuubaat mën nañoo daw léegi oto bi ne teel ñu si nekkoon faatu kon loolu euh, moo tax julli dee su ko dee su ko yàq fay gi tamit noonu la kenn du la may nga di ko yeexee daal am nga bor boo fayakut fa saasa rek demal nga jàpp dem fay ko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 waaw jublu xibla daa bokk ci sarti julli mooy yi nga xam ne mënta ñàkk ngir julli gi baax waaye nag bu fekkee ne fàttaliku nga ko te man nga ko kon bu fekkee ne nit ki dafa ñëw ci barab boo xam ne dafa xamut xibla bi kooku dañ koy sant ne ko na laaj ku xamut day laaj fasalu ahla zikr loolu lay dugg ci barab barab barab yépp bu fekkee ne moom daa laajut dafa sàggan maanaam daal moom xamut te laajut ah kon bu jullee du baax d'accord ndax kooku deful benn ijtihaad maanaam lu wut bu fekkee nag dafa gisul kenn kum laaj dafa gisul kenn kum laaj te mënta ñàkk julli su boobaa kon day xool fa mu gën a yaakaar mooy xibla rek su boobaa mu jublu foofa julli bu xasee ba julli rek julli ga moom wér na insha allahu taala ak doonte sax ginnaaw ba daa yëg ne fa mu jublu du foofa bu fekkee da doon julli waaye xaw a mooy xibla bi xaw a mooy xibla bi nga ne dëdduur xibla bi maanaam nekku ne dafa jublu feneen fu leer nañ ñi bu fekkee dafa mooy xibla bi te njuumte rek moo ko waral waaw ah, kon su boobaa euh, dañoo taamu rek bu julli ga jeexee mu baa mu julli ga bu fekkee waxtu julli ga waxtu julli wa waxtu julli wa jeexut waxtu julli wa bu fekkee ne jeexut naka noonu it bu fekkee dafa julli julli jëm saalum moom sëlmale ñu wax yow fi nga jublu du xibla ba tey bu jógee day bu jógee day julli waar rek wallahu aalam waaye nag bala ngaa julli daal fa ngay jublu da nga ko war a teel a xam boo ko nga laaj ko def ak góorgóorlu wallahu aalam mbokk mi laaj ndax dagan na ci commerçant yi ñuy dem ci banque yi di leb loolu moom daanaka jullit ñu bari xam nañ ko xam nañ ne daganut waaw banque riba yi daal banque yi nga xam ne boo àggee dañ lay lebal nangam nga war cee teg nangam loolu ñëpp dara yëpp xam nañ moo tax nit ñi di ko laaj mooy xam xam xam ne dëgërut kon loolu dëgërut lu mat a wattandiku la ndax jëflante yu mel noona yàlla du ko xaare daa bokk yi nga xam ne du xaar bis pénc lu ci ëpp ku koy jëflante di dem rek lu dana gis am nattum fii ci àdduna wallahu aalam mbokk mi laaj bu fekkee ne dafa yeewu ca fajar mu gis mu gis ne waa waa jàkka ja julli nañ ba noppi waaye rek gis na ne julli gi moom muxtaar mi jeexagut ndax day julli ñaari rakkay fajar waaw ku demul jàkka ja moom bu lijjanti julli nañ wala julli wuñ yow daal boo yeewoo te gis na yaa ngi yeewu ci waxtu julli wi jugal julli sa ñaari rakkay fajar insha allah daal di julli sa paradis suba jàkka ji julli ak ñàkk julli yow amul solo ci yow ndekam yow da ngaa nekk sa kër dong yow sa àtt bopp rek nga yore bul bàyyi xel jàkka ji julli nañu wala julli am na ñoo xam ne dañuy def ne jàkka ji julli giñ julli daa daa joteek ñoom dara déedéet jotewut ak yow dara waxtu julli daal la wax ne boo yeewoo nga gis ne suñu tool nii julli suba daanaka day doo ko jot nga xam ne waxtu wi julli suba di weesu daal des na moom nga ne mën ngaa julli ñaar rakkee fajar jóg julli si ñaar rakkee suba te waxtu wi du jeex su boobaa yaa xam jàkka ja julli nañ wala julli wuñu ak foo mën a nekk da ngay di fajar lay doo julli fajar daal mooy da ngaa xaw a biddanti tuuti bi nga yeewu gis nga ne li des ci waxtu suba bi boo ci dugalee ñaar rakkee fajar waxtu wi day génn waaw subaa moom araam na ci yow ngay dugal genn naa fi la subaa moom boo yeewoo da daal di julli rek faratay suba wala nga yalla nattu la ngay yow sa teg jant bi toll ci di fenk batay suba ba ñaar rakay suba rek ngay julli do meuna julli fajar waye dal bu fekke ne mom waxtu fajar ca nga yew kooku bo yew ak fo meuna nek da ngay julli ñaar rakay fajar julli sa faratay suba jakkay julli lañ julli wuñu yow lolou du la yitteel wallahu a'lam mbokk mi laaj ndax dagal na dugg ci lu mel abbar moy ko ñuy jaayee waaye ngir nga di fa jënd yow lu dagan nga di fa jënd ceeb waa su boobaa loola dagan na waaye nag boo mënee am feneen moo gën ngir sàmm sa diine ngir sàmm sa diine boo mënee am feneen moo gën waaw fee ab baar la danañ fa jaay boisson dañ fa jaay lu dagan waaye am na keneen ku fa nekk yeneen jaaykat yu fa nekk muñal ceeb boobu yi muñ ko araamun nag araamu waaye muñ ko ngir fiir ci sa diine rek na tax nga dem ca euh, meer jóobeen ya ñu jaay la foofa donte yàpp nga ne sax fee moo gën a neex waaye ngir sàmm sa diina na la gënal nga dem jënd ji fee ngir rek wattandiku di dugg ca barab boobee nga xam ne dañ faa xam ak mooy yàlla di fa jaay lu yàllay tere ndax kat mbugal wattaqu fitna la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waaw barab boo xam ne merum yàlla dafay wàcc barab boo xam ne dañ def lu yàllay tere ah foofu bu fa yàlla di wàcce mbugal kat ak ka fa doon duggaale te yoonam niwu ca kooka ñax goo mën naa lakk gu tooy wallahu aalam fekkee amoo pexe nag dara ñëw ci nag bu dee laaj bi fekkee mbokk mi laaj ñoo xam ne ngir bëgg a tukki dañuy dem ci tubaab yi wane ne ñoom ay góor jigéen lañu yàlla ñu ci yàlla musal dañ leen fitnaal seeni réew ngir ñu bëgg rek ñu may leen visa waaye loolu mooy jaay sa àdduna jënd àllaaxira loolu mooy jaay sa àdduna maanaam alali àdduna jaral na nit mu yées mu wàcc ba àgg foofa waaw léegi buñ la may visa nga àgg tukki liggéey faatu waaw ah, te yow yaa dekkale yaa waxoon sa ñu bopp di askanoo sa bopp ci ñee ñee nga xam ne ba leen bañ tooñee yàlla yàlla xaaru leen bis penc waaye dafa daal di wàcce buggal seen kaw fa saasa ngir ngir jéppi gum leen jéppi yow ngir bëgg alal yi àdduna tax nga wax loolu ba ca teg mooy waaw boo waxee loolu ba nag mayuñu la nag allahu akbar seetu muy ñaari alkande xanaa xam loolu ngay sàkku ci tubaab bi noonu ci loxol yàlla la nekk kon won ginnaaw yàlla fekk lu ñaaw lu tilit nga di sa bopp loolu taxul nga am bi wërsëg yàlla mooy inna allah huwa razaq yàlla mooy joxe wërsëg du tubaab bi du visa ñaata nit ñoo am visa te amuñu xaalis ah nekku ne boo tukki rek faaw nga tekki di am na ñu tukki ñoo xam ne seen néew lañ àndaale fii te seen néew sax amuñ luñ ko fay dañ leen a euh, ketal waaw ay vingt euro vingt euro di euro dix euro ngir ñu mën a ñëw am na ñu fa nekk amuñu paas bu lay waxee amuñu paas bu ñibbi am na ñu tukki ay at yi at yi at ñaar fukki at nangami at ba fi mu toll nii tabaarkàlla waa ah, kon nag loola bu ja bu la jaralee ngay jaay sa ngor di jaay sa diine eh, wolof njaay la mu waxoon ku mën a naan naan taxa naan póosi bu rabir ubbee ngurus kon loolu mayu la wërsëg lépp lu ab jullit di sàkk na ko sàkku ngor ak tedd ga nit da ngay da ngay da ngay tedd bakkan da ngay doylu la ngay fegu waaye bu fekkee wut alal jaral na la lépp lépp waaw ah, jaral na la lépp ah kooku su boobaa nag fa la musiba ma fa la ma yem moo tax bis boo wutee dara ca yoon wax nañ ko war a wutee na as gor war a wutee nga wute noonu ba am day neex lool waaye gis nga bis boo ko wutee wutiinu jaam wutiinu xeeb sa bopp wutiinu jaay sa jaay sa àllaaxira wallaay bis boo ko amee ba xalaataat ko maa ngi yor étage maa ngi yor nanga waaye lii ko amee woon ci déclaré gu ma déclaré woon ne man maa ngi bokk ca góor jigéen loolu doo nga tax ma am lii alal sama alal ji waaw kooku day boo dee as gor nga buñ la tegaloon ñam boo gën a neex boo koy lekk wut saf dara ci yow wut a saf dara ci yow yàlla nañ ci yàlla musal loolu nag teewut mbokk mi laaj ne est-ce ay jullit lañu waaw li génne nit ci dina yomut yomut wallahu a'lam. bu dee laaj bi tege mbokk mi leerlu neena jigen bu fekke dafa ëmb gan ñaan lañ ko wara ñaanal ak bu fekke da nga bëgg ëmb ba nek doom ju goor jigen bu dee dafa ëmb ñaan yi ko wara ñaanal bari na lool bari na lool lool lool mënuma ci tuddu genn daanaka bari na dal ñaan go man rek alcorane jëf loko ci ñaanal baxna ko ñaanal juroom ñaari fatiha baxna boko day ñaanal li ila fi khulus ak alam tara di ko ko lemo baxna mom dal ñaan ko man rek ba ci ñaani wolof yi ñaan nekkul na faaw da ngay làkkee arab ñaan mom ab jaam la ak boromam subhanahu wa taala boromam deg lepp man lepp kon olof yi man ko wax suñu borom sama dom ji wala sama soxna fi yalla nang ko sam ba mucc ak jaam nangam nangam bo beugé doom jugoon nga ñaan ko ko sa diggante sa borom la naka jëlul intermédiaire yoru nah, internet amul ak ñaan spécial bo xamne ñaan ku ëmb ne ñaan gi do nga lañ koy ñaanal dedet lepp lo mëna ñaan rek baxna na hmm. bu dee ñaan go xamne boko ñaané ko ñaanee faaw day nekk góor man xawuma tay lolu nañ ci def dank na nit ki amna sañ sañ ñaan suñu borom yalla nga may doom ju goor sañ nga ko ni waye nak yenn effort yu bari yañ cey def mel na doom ju jigen dafa baaxut parce que lenn lolu lay nuru lolu lay nuru day ko xamne limi dacc am doom ju goor lamay tekki moy kon doom jigen da ko xeeb da ko xeeb te bu la fàtte nag bu yàlla ngay xeeb dogalu bu yàlla ngay xeeb jamonoy ceddo jamonoy yéefar ya yéefar ya nga xam ne dañ caa jaamu xërëm yàlla nee na ñoom ñoo yoroon jikko jooju léegi nag jikko jooju bari na ci bari na ci jullit ñi na ñoom wa ida bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim bu ñu ne ma wax seen jabar am na doom ñu ne lu mu doon ñu ne jigéen neen dañuy mer lool lool bari na ci jullit ñi léegi ne gëm nga yàlla ba noppi ay nga xam ne am na koo xam ne dund na ba sonn ñaan lu ba sonn di hôpital doom rek mënu ko am ëmb bu yàq ëmb ko yow yàlla may la doom nga mer allahu akbar loolu mooy weddi boo de ñoo naan weddi bul defe ne bul defe ne weddi mooy buñu defe ne yéefar mooy kuy jaamu xarab kese de waaw yéefar baat bi mi ngi bàyyi ko ci suul jëf waaw yàlla may la doom ñu dëkk noppam nga xam ne xamoo lu muy doon xamoo lu muy doon mu xéewal bu rëy rëy yàlla sax gis nga ba bu seer la wax nga ne mbégte la mu rëy rëy ay millions yi nit ñoo xam ne wala ay junni nit am na sax ay yonent yu amul doom am na ay nit ñu baax ay saxaaba yu mënta am doom am na yonent yoo xam dañuy am dañoo sonn lool dañoo dem ba seen mujjantalu at yooyu yàlla may la defaloo yàlla dara mën naa am sax yàgg dëkk ci mooy yàlla waaye teewul yàlla may la doom nga xeeb nga xeeb kon ko jooju nañ ko wattandiku comme neex jullit nag man naa ñaan ak suñu borom su ma seen nga may ma doom ju góor nangam nangam kese yem ca waaye da ca sonn di fu ne dem fa lu ne def ko ngan damay am doom damaa bëgg am doom ju góor yi waxutoo doom waaye yéeg nga doom waaye yaa ngi doom ju fekk am na koo xam ne mi ngi ne siiwa jot ci doom moom loola nag ak ak weddi la loola ak ñàkk ngor la sool jëf la yàlla ci yàlla musal waaye bu la neexee daal boo jullee ñaanal yàlla si borom euh, na nga may doom ju góor ndax nangam ak nangam yow yaay yaay xool incha allah waaye nag di ca def yenn effort ba mel na da ngaa xeeb doom jigéen loolu ëpp naa def wallahu aalam laaj bi tegee mbokk mi leerlu euh, nee na ndax julli ci kaw fons euh, maanaam fañ doon julli daal dafa fees fees fees ñuy ragalan ba ci bitti ñu lal ci loo xam ne ab fons la waaw fons bi moom la nekk ci biir loola yëpp jutewut ak yow daal mën naa am sax sa kër gi nga dëkke sa saal bi mën naa am sobee nga ca suuf mën naa am sobee nga ca suuf dangay kër goo xam ne ab fons la woon ginnaaw ba ñu toj ko nanga tabaxaat ca kawam fons boobee Euh, sobe sa ba léegi mën ca suuf sax dañ koy sëkk rek jal ko ba mu nangam nangam julli daal yow bu lijjantil fi ma taxaw la ca la ca la ginnaawam loolu kenn lijjanti loolu li nga lijjanti loolaa mooy fi ngay jullee rek fii nga taxaw di julli daal moom bu am sobe la ca des nag amul solo ndax loola ca suuf la nekk nañ ko bàyyi suuf wallahu aalam mbokk mi laaj nga sangu ba noppi ndox mi des ci maanaam am sangiit la ko wolof di tudde bi nga sangoo ndox mi des ci sew ndax man nga cee jàpp waaw bu fekkee ne da nga doon xëppoo ndox nga ne sa yaram set na wicc nga ne ndox ne bi nga ci xëppoo ba ndox bi nga xoolaatee dara soppikoo ca bu fekkee loola am na sib nañ ko waaw gis nga ko de bu fekkee loola am na xam nga dara dara soppikoo ci waaye sib nañ ko bu fekkee man nga am meneen ndox kon sib nañ ndox mooma mooy taamu wuñ ko waaye boo càppee dana baax de bu fekkee rek ba nga ca xëppoo ndox ba noppi wala sax saabu nga doon songo ndox ma am na ak cafka wala mu soppiku kooku moom baaxut waaw kooku moom baaxut wallahu aalam mbokk mi laaj nee na benn waay ngi ni boo xam ne nee na moom day julli suba da da koy yeexe lool daal day naru ba biddën ba naaj tàng lu ci ëpp di ci ay huit heures wala neuf heures mu koy doog a julli nee na day bëgg a jóg waaye du waaye du jóg muy laaj ba xam ndax kon bu yeewoo julli yooyu muy julli ci ay huit heures gi neuf heures ndax dana baax wala boog day xaar ba tisbaar jot mu doog ko fay waa la baaxut ma nga tàmbalee ci loolu ngay def mooy biddanti gi ah, te sëriñ bi nag wax dëgg yàlla boo amoon visa war a tukki jàpp ma ne da nga biddan man jàpp ma lol kenn ku ci nek bo amé soxla su ñor ngay wut liggéey ñu la suba na nga ñew waye 6 heures nak ci fajar na nga ñew wallahi da nga dem de wa da nga dem ko tax mbir mi jaral la ak gëm ak pass pass rek pass pass pass pass bu dëgër moo manqué rek waaw bo doon tukki ñu la abiyat mi ngi wara départ euh de nga 6 heures bo wat ndikul guddigo ko sa do nelaw ndax da nga nan wuur da nga nan wuur kon nak ñak Euh, léeg-léeg moom dañuy ñàkk rek pasteef xaw a yeb yàlla ak it ñàkk xam lu rëy lim lay wàññi ndax ñàkk julli fajar bu weesoo bàkkaar beeg sàggan nga ci wàllu diine li muy wàññi ci àdduna kenn xamut nu mu toll bari na lu nit ki ñàkk ñàkk julli fajar moo ko yóbbee nit ñi dañ ko xam waaw kon daal na nga xam ne sëñ Tuubaa nee na saa yoo yeewoo rek na la wóor ne am na bàkkaar bu diis bu la yàlla gàll nga yeewaat faataat waxtu julli suba yàlla am na yàlla gàdd na la bàkkaar wanmi azima zanbi lil muaxiri xataa tafootuhu bila usrin turi képp ku nelaw ba julli weesu kooku na ko wó bu ko yëgee bu ko yëgut na ko wóor ne yan nañ ko bàkkaar boo xam ne ni montagne la toll boo léegi bu ko defee kon ndaw bàkkaar yu bari bismillah alhamdulillah bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi leerlu euh, nee na seen euh, seen ca marché ba bu ñuy julli foofa dañ fay def julli mbooloo nee way ra julli mbooloo mi lele léeg mu góor mi day am ay jigen ñu taxaw ci ginaaw way lele léeg mbooloo mbooloo ñi dañuy sappé ba xawa seuf ci jigen ñi wala sax ñu bokk sappé moom mi laaj non la ko laajee nee na benn bis sax gis nako bu noppé wax ko soxna sa bu noppé wax ko soxna sa xeyna dal ne ko dal and gi nga and ak góor ñi ci julli gi nangam nangam nee soxna ci tontu ko ay wax xeyna dal daal ba mom mi di laaj sax nee da daa bàyyee fofa daa bàyyee jullee foofu waaw man de jàpp naa ne euh, xëy na euh, ni nga ko doxale mënoon naa gën a baax xëy na da ngaa bëgg lu baax rek waaye léeg-léeg bëgg lu baax dana ànd ak ak dal nag akuk teey ndax xam nga doomu aadama yi euh, dañoo gaaw a gis seen bopp moo tax boo leen di sant donte li nga leen digal lu baax laat faaw da nga xam ni nga koy waxe ba ca tege mooy yow mi koy waxee da xam ne doo yàlla doo yàlla mi leen bind waaye sa moroomu jaam ngeen boo leen leen bëggal lu baax rek kon su boobaa bul ca toggoo yenn yi fi ne waroo lu tax lu tax nga dafa bàyyi julli day mel yow it ndax digal kenn lu baax diggu ko rek nga ne kon koy bàyyee jullee loola ëpp naa def kon loolu it ba tey xaw naa dafa mel na ngaa xaw a euh, tàng ba mu ëpp xëy na nag bëgg lu baax moo la ko yóbbee waaye digle ak tere daa am nuñ koy defee yàlla moo bind jaam yi te da leen digal ñu bañ te taxul mu abandonné leen kon yow nag boo dee ab jaam ci seen moroomu jaam rek ah digal leen benn yoon dong benn yoon kese nga digal leen te sax kenn nga digal di fut nga daal di gaaw gedd foofa loolu naa def loolu ab jullit du doxalee noona loolu ci yow la jëm ak laabire ak laabire la ba ci teg mooy lu tax ngay wax jigéen ñi rek lu tax waxoo góor xam nga da jigéen ñi dañuy taxaw ne góor ñi léeg-léeg dañuy sàppadu quoi lu tax ne nga yéen góor ñi kat jigéen ñi taxawoon fee lu tax ngeen sàppe ba sës ca ñoom bu fekkee noonu la demee kon góor ak jigéen rek la ndekam jigéen ñi moom du ñëw mu taxaw ci sàppe ci kanam bi xam naa loolu faaw ca ginnaaw la ñuy taxaw a ah, léegi nag góor ñi bu ñu sàppee ba sës ci ñoom góor ñi new ba xam ne fii su ma fi sàppee danaa jaxasoog jigéen ñi ñooñu ñoo fa war a sàppe kon loolu ni nga waroon def may bàyyi ba julli léeg-léeg laa biire ni nga koy defee anam da nga koy defee mën naa yàq lu bari mën naa ndax doomu aadama daa gaaw a gis boppam kon la gënoon mooy bañ jullee ba sëlmal nga bàyyi ba nday jóob ndax xam naa am njóobeen lay doon bàyyi bu mu toog nga ne ko lay jóg am na lu mën a bëgg a laa bi gis naa bi ñuy julli bi ma sëlmal damaa seetlu ne yow daanaka yaa ngoon ci góor ña te loolu loolu gënut loolu dañ koy tere nangam waaw lu waral loolu mu ne ah man kat su ma taxawoon nangam nangam nangam ngeen expliqué nga ne ko léegi bu ëllëgee nangam waaw wala mu jaral la sax nga jënd basan gu yees waaw yow mi bëgg lu baax dan la jaral nga jënd basan gu yees nga xam ne basan gi jullee jigéen ñekk moom bu ñu dañ koy lal ne arrière ñaari mètre ci ginnaaw ñu laal ko foofa jullee jigéen ñi donc xanaa góor bu du xool jigéen ñi dem dafa taxaw moom waaye bu dee dañoo bokk basan nag ah mën nañoo róobalante kon yooyu yëpp ay pexe la wax ak moom ndànk ne loolu baaxut loolu day wàññi nangam nangam nangam nangam boo liggéey nangam wala ngeen jël seen basang defe ko maanaam daal wut solution loolu solution la ba ca tege mooy ka nga ne moo jiite foofa xëy na ka yor buntu place am nga xam a tàmbali loola ba tey mën nga cee ne ko nangam nangam war nañ cee wut solution ndax nangam ñu wut solution kon problème bu amee dañuy wut solution waaye duñ daw problème bi waaw duñ daw duñ euh, duñ daw bi loolu nag du tee julli ga baax de waaw du tee julli ga baax na waaw gis nga lislaam euh, yow li nga diisal ni nga ko diisale lool dëgg la diis na waaye nag aggul foofu aggul foofu aggul comme fi nga ko yóbbu aggu fa ndax teewul julli ga baax ndax jigéen taxaw ne góor taxaw ne ñu julli julli ga wér na de waaye lislaam boo sañoon rek dañuy dañuy soree loola loola lislaam bëgg kon daal boo ko mënee réparé wax ak kooka ne ko keroog de wax naa la nangam ndax lu ci ëpp nit ki boo waxee moom ci biir nit ñi dalay tontu ndax day day defe ne da nga koo bëgg wala daal day bañ darajaam wàcc waaye lu ci boo wéetee wax moom mën naa ñëwaat kon boo ko mënee demaat ca ndey jóob moomee nga wéet na ko karat dama laa wax nangam ma gis ne ma tontoon nangam maa ngi jéggalu xam naa ni ma la waxee la waaye lii rek laa laa ci jublu nangam nangam te jiite foofa ngeen organisé xool naa nga xool nu mu baaxee julli ki di am jigéen ñee taxaw ne góor ñee taxaw ne te doo ca doo ca bàyyi julli ka du nga da nga ko defe julli lépp baax seytaane moo moo cee toroxe rek nag wallahu aalam bu dee laaj biñ tege mbokk mi leerlu Euh, nee na moom buy sangu janaba bu sangu janaba bi jeex lu ci ëpp day laal sakaraam ab sawukaayam mu ne nag dégg na nag ci borom xam-xam yi ñu ne góor bu laalee ab sawukaayam du amati njàpp waaw war naa jàppaat waaye moom nee na ànd ak loolu lépp téewul nag bu génnee ci sangu janaba ja daal moom day dem julli ah man de loolu jaaxal na ma waaw nu ñu waxee ne la lii day yàq sa njàpp nga dem di julli waaw loolu de moom jaaxal na ma dañ ne la lii day yàq sa yaa ngi sangu janaba sangu janaba ya laal nga sa sàkkara kon amutoo ak laab sangu janaba moom yokkuwul dara néew ci waaye njàpp moo mën a jullee moo fa amut léegi nga génn di julli te yow xam dégg nga borom xam-xam yaa ne borom xame nee loolu day yàq jàpp kon day mel ne yow yaa nga julli ci loo xam ne doy na waar di kon nag na la woon a julli yëpp benn baaxu ca mboolem julli goo julli te fekk laaloon nga sa sàkkara bi sangu janaba gi jeexee julli goo ko baaxut su ne war ngaa lim lépp nga baamu war ngaa lim julli yooyu yëpp nga baamu leen ndax day mel yow da ngaa da ngaa xam ne amoo njàpp borom nga julli ndax yaa ne dégg naa ci borom xam-xam ñu ne nangam waaw li nga dégg ci borom xam-xam yi kay da koy jëfee waaw kon nag booy sangu janaba ba nga raxasee sa sàkkara bu nag bu fekkee laalaatoo ko fi sangu janaba googee boo noppee mën nga caa julli waaye bu fekkee da nga koo laalaat nag sangu janaba ga baax na de waaye nag euh, njàpp ma moo baaxut kon faaw boo bëggee génn génn julli faaw da nga jàpp te booy jàpp nga yéene ci njàppum farat loolu mooy tax waaye boo ko defut nag sangu janaba ba ba nga sangoo jana ba bay waaja àggal nga laal sa sàkkara kooka amoon mënatoo julli boo jullee nag yaa ngi julli ci loolu laab te mboolem julli yooyu da war nga leen lim xool nu mu tollu nga baamu leen wallahu aalam mbokk mi laaj moom it laaj bu xaw a demee noonu soriwut nee na benn waaye ngi nii boo xam dafa am jana janaba waaye daal neen bi mu amee ba moom sënguwut moom daal sobe sobe si ka taxoon rek raxas na ko daal di jàpp ba mu jàppoon noonu lay jullee di ci julli ba ngoon waa julli yooyu yëpp benn baaxu ci de a julli yëpp benn baaxu ci ko am janaba da ngay sangu wa in kuntum junuban fa taharu alxuraan neen bu ngeen amee janaba dem leen sangu ji jàpp ñu ngi koy sant ki war a jàpp waaye waroo sangu janaba dem di jàpp <laughs> waroo sangu janaba dem di jàpp kon mi ngi noonu kon ki am janaba faa woo day sangu boo jàppoo baaxut jàpp mi amul njariñ jàpp mi amul benn njariñ <laughs> kon sangu nga war a def kon nag julli yooyu mu julli woon ba ca ngoon nga ak yeexe gi mi yeexe sangu janaba gi sax da ci am bakkar yeexe gi mi yeexe sangu janaba gi moom dal ku xamut laaj dal mo gën xam li lepp jek jek def te laaju rek mo koy waral te lolo dafa yomb lool lu upp ci nit ki bu fekke ab sam njàng wut bo jekke jekk def rek lu ci upp da nga def njuumte kon nak ku ku ko wara sangu janaba bu jappo amul ben njariñ japp ma amul ben amul ko ben njariñ ba legi mi nga and ak sobe julli yam julli wonit it ko war kon te ba ngon jote bam sangoo janaba julli yam julli war na ko baam borom jéggul yàlla te wattandiku bu ëllëgee mu di ko defaat wallahu alam mbokk mi laaj ne dafa ànd ak imaam di julli imaam sujjóot waaye sujjóot ba xaw a yàgg te moom loolu da koy loo xëj maanaam xëy na bu sujjóotoo lu yàgg rek day mel ko fàtt muy laaj nu muy def waaw day siggi waaw day siggi ba jël air ba fekk mën naa sëggaat ànd ak imaam baax na bu ko mënut mu siggi bu ko mënee mu siggi bu ko mënut mu siggi waaw kon ko bu fekkee mën naa siggi tuuti jël air sëggaat bu fekkee mënu ko rek na siggi complètement ca sujjóot ba xaar imaam waaw xaar imaam insha allahu taala lii lépp yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko imaam yi nag nee na yéen ñi jiite bàyyi leen xel ci ñi topp seen ginnaaw ndax am na ñett ñu ca bokk am na koo xam ne dafa mage te ku mage mënut yenn sëggaay yàgge ak yenn gaawaay yi mënu ko am na koo xam ne dafa feebar mooy kii di laaj nii daa feebar kon gis nga sujjóot bu yàgg ba lor na ko am na koo xam ne nee na dafa amee soxla waaw ah, am na soxla su far soo xam ne boo wëtandikut am na kaar bu koy xaar wala am na kayit bu mu war a lijjanti boo xam ne bu xawee yéex tuuti rek ñooñu danañ wàcc yow da nga tee julli gi rek ndeysaan taxaw fi nga taxaw am ci looy di la upp rek ngay guddal lu ne nga guddal ko loola loraange yonent bi jàngale woon na ko jàngale woon na ko ndax nag imaam yi ndax nag imaam yi dégg nañ diine wala déet ah, bari na ñoo xam ne ay njóobeen lañu wallahu aalam mbokk mi laaj ñi koo dafa tukki ginnaaw bi ñoo xamal ko ne ko sa soxnaam dafa am doom man dafa ëmb ba am doom mbokk kii kii laaj nag daa bëgg a wax ne daal ëmb ba daa jógewul te jëkkër ja moo ne mën na caa jóge nag mën na caa jóge de waaw loolu moo tax dara yombut bu defee ne lii rek lislaam dana jàppe ne njaalo amagul na déedéet lislaam jàppagu ko de waaw nit ki bu fekkee mas naa séq ak soxnaam dara man daal moom mook soxnaam yàgg nañu ñëw na euh, séq naag soxnaam mi ngi sëy moom boo delluwaatee lu mu yàgg-yàgg ba soxna sa ëmbee lislaam du tëdd rek na njaalo la de waaw ndax ëmb daa mën a yàgg ëmb ci lislaam dañuy wax ne man naa man ñetti at kon bu defee ne jëkkër ja ah toog na fa at ñëwul rek soxna si ëmb na kon kon loolu yënul maanaa déedéet nañ ci tey bu dee bu doon ci lislaam laay wax nag la ñuy wax bu fekkee nag soxna sa daa mës a siq ak borom kër ba dara kon loolu amul werante ne njaaloo la nekk waaye ja ma ñu may ko fii soxna gisanteeguñu soxna sa ëmb am doom kon loolu mu amul jigéen bu ëmbee am doom te amul borom te amul borom kër wala mës a gis borom këram loolu li muy tekk rek mooy kon bu ba wol ci jëkkër ja wala bok jëkkër ja yag fa lol dir bo xam wala bok jëkkër ji sax bi muy joggé Sénégal bàyyi won na soxna muy gis dérété bax nga dara xam nañu soxna fii ëmbutoon moo tax ma li ab atté lay doon xam nga li lepp man damay jëm tal rek naan bu féké bu féké waye faawu kon bu doon ci l'islam dal duñ sepp sepp naan jaalo wala du njaalo faawu ñu tek ndaw sa xol laaj gëstu nangam nangam do ko saxal dara do ko saxal dara motax bari na kuñ tuuma fekk tuuma dong la fekk tuuma dong la Mhm. kon daal ay atte la faaw lislaam dana ci xool yu bari bala moo atte bu fekkoon nag lislaam daa xool xool ba gis na lii kat njaalo wala ndaw si waxalal ko boppam ne kon dafa njaalo kon su boobaa leer na ngay jëratut laaj doom ja atte doom jaaf yu mel noonu ndax doom joo xam nañ ne doomi njaalo la doomi njaalo nag ci lislaam duñ ko askanee ka ko jur waaw donte kooku moo ko jur lislaam dana ko nangal ne moo ko jur waaye duñ ko ko askanee duñ ko askan ndax dañuy jàpp ne jigéen ju mën a see góor jigéen ju mën a see góor bu ko tëkkut mën naa am njëkkoon naa sëy keneen njëkk see mën naa am ëmban mën naa jóge ci keneen te kenn du ko xam ndax comme moom daa dem bay mooy yàlla rek man naa mooy yàlla ku ne waaw mën naa am rek am na kuñ ca miin xam ko ca naan kii daana ko def waaye mën naa mu seqoon keneen ko ne ko mën ñoo ko jur yàlla rek a moo tax duñ ko askane kooka kañ jàpp ne mooy bàyyam duñ ko askane doom duñ ko kenn moo tax lislaam bi ko sax ñëwal ngénte du ko wax sax ñëwal ngénte loolu nag ne waaja daa ñëw taxaw dëggal boppam ne ca dëgg-dëgg day xëy na maa juum mooy ak moom yàlla Eh, doom ji sama doom a nangam loola am na aw yoon am na aw yoon wu lislaam di jaar ba nangul ko doom ja ba nangul ko ba nangul ko doom ja waaye ak lu mën a am daal sëy ba moom yàqoogut jëkk ja bu fekkee nee na ba rek damaa bëgg sama soxna ah, kon nag eh, mi ngi noonu ba léegi soxnaam la lee nag ak mooy yàlla la goo xam ne eh, tabarkàlla mi ngi noonu doom ja nag jëkk ja moom comme juru ko rek juru ko waaye nag bu fekkee jëkk ja daa taxaw ne daa taxaw daa di fasewut jabaram waxu ca dara Eh, laaji ngénte ah su boobaa kenn du ca wax dara de waaw kenn du ca wax dara fekk jëkk ja daal yàgg naa ñëw di séq ak moom tukki na toog na lu yàgg eh, am na ñoo ko jàpp ne lii njaaloo la nanga waaye jëkkër ja moom moom daal ñëw na ngénte doomam la ceel loolu kenn sañu taa tudd dara kooku dañuy jàpp ne kon jëkkër ji mooy bàyyam te bu faaroo dana ko doon ak lu ca nit ñi mën a jox sax lu ca nit ñi mën a ndax bala ñoo saxal njaalo daal faaw dana am ay preuve yu ñu laaj yu bari bu yooyee dajewul na lu nit ñi ñaaw ñaaw njort lislaam day jàpp ne kee mooy bàyyam ba keroog bàyyi ji wedd rek bu bàyyi ji kii nag juru nga ko ñu ne ko lu tax mu ne ndax nangam ak nangam lislaam mooy xool kon su boobaa kon daal lii day jar ab àtte ah, day sul jekk-jekk rek ne njaala la wala nangam nangam dana jar àtte bu yaatu wallahu taala aalamu sawaab wa ilayhi almarjax wal maab alhamdulilah mu dee laaju mbokk mi muy leerlu daaira naka la war a doxe ak ka nga xam ne moo ko jiite ak loo ci ajo loolu xam naa thème la loolu moom da ngeen waroon a invité boroom xam-xam ca daaira ba ngeen jox ko tem bi su ko defee mu waxtaan ci ñëpp dégg ko ndax du yomb ci tontu laaj nga xam ne daanaka euh, deesul mën a yaatal su dee mu indi ay tomb tàmbale ko ca bopp ba indi charte ya ku mel ne Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma radiallahu anhu defe naa am na ay sart yum ci tegoon buñ laajee ñu mel ne eh, ndeysaan wilaaya bu njëkk ba eh, nga xam ne tabaarkalla ba léegi ñu ko ne def seen liggéey mbokki Taayif yi ak ña ko jege woon yooyu am nañ ay documents yoo xam ne dañoo teg daayira nam war a doxe ak yee ci aju nga ne xeetu administration la rek administrative eh, liñ ci mën a tënk bu dee nag laaj bi xam naa ci wàllu diine ñoom lañ bëgg a xam awalan la ci njëkk mooy ñu xam ne daayira daara daayira daara la loolu lañ war a njëkk du association déedéet daayira daara la daaray koñ wala daaray ab gox daara la daara joo xam ne ñu bokk luñ gëm bokk pas-pas bokk genn wàll ñëpp ñoo bokk sëriñ bi ñu def ab daayira daanaka kon ñoom la concerné ginnaaw bu ñu xam ne daayira daara la li muy tekki mooy kon daayira barab la bu ñu war a jànge lu dañuy daje di naan kafe di toggi ceeb déedéet barab la loolu bu ci amee mën na caa yokk rek waaye objectifu daayira mooy defar nit mooy daara ku ca bokk da nga da war a yëg ne yaa ngi defaru ku ca bokk da ngaa war a yëg ne yaa ngi xam loo xamutoon kese boo ca bokkee sa dollikoo ca xam-xam dollikoo ca ak defaru kooka dañ lay tardel bàyyil ak nuñ ko mën a tudde amul njariñ kon la war a jiitu ci daayira bi nga xam ne moom lañ war a gën a sonn mooy fexe ba nit ñi jub ak nit ñi defar ak nit ñi xam nga xam ne daayira bi war naa am ay woroom xam-xam yoo xam ñooy toog mairie dëkk ci koñ beeg jànq jeeg gone yu góor yeeg ñi sàgganoon ba juddu ñoo jàng alxuraan ñu tàmbali leen jàngal fatiha ndax ñoom ñu ngi julli te mu ñu mënuñ faatiha daayira daa war a ñëw régler problème boobu ñi bokk ci kenn wër ta bokk ci daayira bi te mënoo faatiha mukk bu faatiha jeexee ñu xool saaree ca tegu am na ñu mënutoon a ijji nu ñuy def bañ mën a ijji ñi nga xam ne xamuñoon seeni farata daayira bi war naa régler problème boobu nu ñuy def xam seeni farata nga xam ne boo ci bokkee at da ngay yëg ne man daayira bi may ci bokk mënu mën a ijji léegi de maa ngi dëgg yàlla maa ngi jàng wala aadiyaati ah man bi njëkk ndekete fatiha baaxutoon ci daayira bi laa xamee ne ndekete ni ma doon taree fatiha baaxut man sunnay julli dem naa ba am nangamet xawma ko ginaaw bi kay laa doog a xam ne nangam la farata njàpp nangam man kat masaa bopp bu njëkk dama defoon ne sunna la jeex na lépp daayira bi la ko war a defal waaye li ëpp ci daayira li ñuy sonn mooy laaj ay teg xaalis daal moom laaj teg cotisation nangam social nangam moo tax nit ñi daanaka dañuy dem bañ ñenn ñi xaw a bu dee daayira bi jaarut yoon kon daayira du bar buñu ñu rek di laaj ay xaalis nit ñi di dem di dédé dañ ci defar nit di leen indil ay tém ay temi waxtaan tay temi yu bañ ko def temi rek temi temi tariixa témi tariixa rek sëriñ bi sëriñ bi nangar kessé mu jëm ci tariix dédé nañ ko def temi l'islam mu généraliser mu généraliser buñ defee fukki tém bu dé fukki tém la na ci benn dong jëm ci walu tariixa wala ñaar li jëf lepp na jëm ci walu l'islam d'une manière générale aw tay kat dañu bëggoon waxtaane acte waajur waaye nit ñi defe nañ ne booy def daayira moom moom boo bëggee waxtaan dal faaw dañu bu dee noonu mori bi yaa sëñ tubaa ja géej ga amul morom nangam foofu rek lañ ko bëgg a yemale duñ ca jógee duñ ca jógee mën nañu toog ay fukki at waxtaan boobu donc moom la ñuy jël si même buñ ne dañuy def euh, ak sant wala nangam buñ ñëwee kañuy wo loolu donc lañ koy waxtaan loo ñuy fettasu rek defe ne ñoo ca nekk sëñ tubaa soxlawut loolu li mu soxla ci ñun mooy jub jaar ca yoon wa képp la soxla ci ñun soxla wut ñu di ko kii déedéet la moom am na ko bu dee am na lu ñuy euh, fi fam jaaroon bu dee am na lu ñu cee jànk géej gi lu mën a doon dañuy ci tiire ay leçon waaw yoonu sëñ Tuubaa wi ci géej gi luñ ci mën a jànkate du rek ngay fetoosu di yuuxu sëñ Tuubaa nee na ci nax ju isaa ajabatka lu ma in fakkunhu ay waay nit ki bu la yéenee da koy yéem a roy da koy nekk waaye bul toog rek naan ak a yéeme ak a yéeme amul morom déedéet yow da ngay jéem a ñàkk morom yow da ngay jéem a yéeme mooy lan nga ne sëñ tubaa moom waaw moom képp tubaa bi ñëw ne ko nii la mu ne du nii ñu ne ko boo jël boo deful liñ bëgg dañ lay def nangam mu ne yàlla jaral na ma ko loolu luñ ci mën a jàng mooy man nii kon dafa ma jàng ak ngëm yàlla pas pas bu dëgër lu tax sëñ tubaa dem ca géej gi sànni ab yaram di jullit ñu daa ah, dafa wóolu yàlla ñu jàngale def tem ci wóolu yàlla lutax mu dem beure ba ci ndar jàkkaarloog noye ya. ko fa sa taxaw di tim di xalat la am dara la nga fa wara a du mu ngay fitlo sudé nan yi mom kay amul morom dedet loolu dula amal njariñ amal njariñ moy fit wi bimu am ak wolu bimu wolu yalla ak jom jim am ba jaamu yalla gi mu war jaamu yalla fu mu mën taxaw da koy def li moy leçon bi jaariñ jëriñ taalibe bi waaye ñun xamuñ ci euh, xamuñ ci lu bari kon tem yu mel ni même boy waxtan di señ bi moo xam dayra wala ku man doon ci alhaji malik xoolal li nga xam ne nit ñi dañ ciy mën a jariñ dañ ciy mën a tirer ay leçons bu ñibbee mu mën leen a jariñ waaye du mbirum rek sama tariixa gën sa tariixa sama gën sama sëriñ gën sa sëriñ moo fi def lii képp képp kese donc déedéet du mbirum folklore kon daayira lii lay jariñ su ko defee nag bu ñuy tànn ñu xool kañuy tànn ci wàllu ak njub bu dee ka ko war a jiite na jub na nekk koo xam ne nekk ab royukaay ndax royukaay mooy koo xam ne bu ay nit ma dëngoo ma leen anga bu dee tey jii dañoo jël am njóobeen jiital ko ah kooku bu ëllëgee bu fekkee ah, am na ñeneen ñu am problème moom du mën a ñëw di leen defar ndax ñaari jub ga ca ga ca war mën naa am da ko dul am da ko dul am kon kooku na jub boo néewuñ nag na jub xoccu ba nga xam ne bu doom sikk déedéet nit mënta ñàkk sikk yàlla rek moo mat na jub ba nga xam ne buy jubóole ku waxal nga rus ndeysaan ah, da diw dama xamul nu ma koy def rek ndax moom daa baax lool nangam nangam na nekk ko yeewu ci àdduna xam ni muy doxalee bu mu nekk bu mu forcé nit ñi daal faaw da ngeen joxe nii addee bu mu xeeb lañuy joxe waaw ñun dañoo ñàkk pëstéef déedéet nit ñi dañoo am ay dañoo am ay waajur bi dañoo am ay waajur war leen a dundal te jox waajur yi moo gën a farata jox daayira bi loolu lépp ñuy xam priorité yi ni mu tegaloo nekkul ne rek faaw da ngaa war a jël li nga am lépp buub ñëw jox daayira bi déedéet da ngay liggéey boo liggéey nga am loo lekk boo jëlee la nga lekk borom nga jox say waajur jox say doom xool àq yi nga amee la sa soxna nga jox leen bu defee nga jël ca la sa xol àttan nga ñëw joxe noonu la kon bu kenn xeebal nit jël lépp def ko ci ay cotisation ay dajale nangam ay déedéet mbir mi du dox ci ay xaal ma dox ci xel mu te di dox ci diine lenn lu ci nekk ñuy xool la ca diine wax bañ a xool bañ a li nit ñuy def rek naan lii moo xew déedéet kon daayira ci tënk mënu ma cee yaatal daara mooy dañ daa war a yitteem ju njëkk nga ne moo ko gën a ñor du dajale dayre yi jébbale wala am mbooloo mu bari wala nuróole ay tën tëni wala dajaloo naan kafe wala nangam day dem jub nit ñi jub buñ fa dajaloo ñuy jéem a jub ku dëngoon bu duggee ci daayira yëg ne jub na ku xamutoon bu duggee ci daayira bi daayira bi yëg ne xam na loolu daal mooy tënk bi mën naa gën a yaatu nag waaye mooy tënk bi ñu ki bëggante seen biir tam sell ngir yàlla fu ñu waxtaanee wala ñuy jàngale ba julli jotit ñu ne ñokk dem jàpp ji su ko defee loolu ka ñëw day rexe loolu dara nekk ci xelam ba bu ëllëgee bu demee këram bu nekkee def dara bu julli ji te mu dem julli ji bàyyi xel bu baax daal fexe ba nit ñi ñu def leen ay jullit bala ñoo doon bala ñoo bokk ci benn tarixa waaye bëgg a doo bokk ci tarixa ba xëri ca te yow sa jullit xamagoo ci dara bëgg ci sëñ bi nii sëñ bi nee sëñ ba géej ga nàngam géej ga nàngam te buñ ne laa euh, faratay jàpp ñaata la doo ko xam dëgg bëgg a nekkoo murit te nekkoo ab jullit nag wala xamoo dara ci mbirum jullit xamoo yonante bi xamoo saxaaba yi loola yëllut njuumte la boo xam ne ñu ngi koy def والله تعالى أعلم